سيدنا محمد القائل إنما أنا رحمة مهدات وعلى آله وأصحابه الرحمة ذوي القلوب الرحيمة وعلى خديمه الشيخ أحمد البنب خادم الرسول الذي مدح مخدومه صلى الله عليه وسلم حيث قال أحمدنا رحمتنا حامدنا نعمتنا محمودنا فرحتنا والجود مزر الديم ورضي الله عن عن البدل أو عن العارف بالله الشيخ محمد الأمين بارا القائل يا ربنا إن الورى تضرعوا لأوليائك معا ليشفعوا إليك يا رب يا ربنا يا ربنا فكن لنا وجه لنا لطفا وأمنا يا أحد يا من تعالى لم يكن كفوا أحد amma ba'du mbokki julli di gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi sëriñ Sidi al Muxtaar Mbakke yàlla na fi yàgg tawéeru ndax lii lépp moom la kenn wérantu ne moo fi sëriñ Touba waaye moo fi sëriñ Baara kon dañuy santaat yàlla sunu borom subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu teewaat fi ren fës yéene jàkkarlook xarkanam yu sell yi ak jëmm yu sell yi nga xam ne dañoo ñëw ubbi seeni ndab muy seeni xol yu sell ngir fas yéene taataan li nga xam ne baaxoo nañ di leen ko defal chaque année muy waxtaanu ngoon wi nga xam ne mooy tëj journée kiitalalu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara di ci fàttaliku jeexitalu Serigne Bara ngir ñu mën a am fu ñu mën a royaat ak ñu mën a royaat ak jëf yu mën a royaat ba mën a xam naka lañuy ñuy suñu àdduna kon xidma boobu kenn wenut ne amal nañ ko nii bu loolu jàllee ba ca topp mooy bëgg bëgg moom moo tax nit ñi ñëw fii moo tax ñuy def ba ca topp mooy génn sa alal def ko ci kenn werantewut ne dëppi ay weer wala dëpp ay semaine ay bis li ñu gis ci journée culturelle Cheikh Mamadou Bara foo toll danga koy gis ndax ndax télévision yi guddeeg bëccëg ñu ngi teg ay annonce di def ay plateau di waxtaan ngir gën a leeral kenn mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara kon loolu ay moyens moo koy def kon la Sëriñ Tuubaa ne hadiya aw hadiyaat googu mooy moyens yi nga xam ne jël nañ ko def ko ci pour mën a leeral seen mbir kon yooyu yëpp nag bu amee yàlla nañu ko yàlla su mboroom nangul yàlla nañu ko yàlla nangul ak képp ku fi teew ak képp ku am yéene teew fii te mënoo woon a ñëw ak képp ku ñuy seetaan tamit ak foo ñu mën a seetaan ci goxi àdduna bi nga gis ngeen ne tey mën naa wax ne journée nationale la journée nationale la boo xam ne tey jii chaîne télévision yi nekk senegal yi ci ëpp dañoo wane bis bi en direct waa Amérique di ko seetaan waa Europe di ko seetaan waa afrig di ko seetaan mu mel ne benn événement tey moo am Sénégal la leen antu yeeg moom te raxu yeeg moom muy journée culture Cheikh Mouhamadou Lamine Bara kon loolu la lu rëy la loo xam ne li ko def lépp haddiyee lañ ko jël def ko Cheikh Mouhamadou haddiyee Cheikh Mouhamadou Bara kon ki ko def nag. ba may ñu occasion bi ñu mën a ñëw teew war nañ ko sant yàlla bu baax ñaanal ko yàlla suñu borom mbooloo mi yàlla suñu borom dëgëral ko ci barke Sëriñ Tuubaa comme ni ko baax baaxoo defee chaque année xam ngeen day jël dañuy jël benn thème ndax àdduna li ci ëpp solo gën cee am solo ci événement diine yi mooy waxtaan yi waxtaan yi moo ci ëpp solo pour naka lañ mën a fexe def ba mën a jariñ ci ñoom moo tax chaque année ñuy jël ab thème di ci waxtaane ku fàttaliku daaw jéeg thème bi ñu fa waxtaane woon mooy alxasad li ñu mën a tuddee kiñaan soxor daaw jéeg yaakaar naa ñi fi teewoon wala ñu ko seetaan télévision yi gis na lañ ci waxtaane woon daaw ñu ngi waxtaan la crise de valeur mooy jikko yu yàqu yi la alxuraan wax yentu salan sëriñ Tuubaa sëriñ Baara yooyu yëpp andi woon nañ ko incha allah ren ñu ngi waxtaane yërmande yërmande lañ fas yéene waxtaane ren mooy diine sëriñ Cheikh Mouhamed Lamine Bara ak tolérance tolérance moom la ñu fas yéene waxtaane te ku tudd tolérance mooy koo xam day am xolub yërmaane mën a wàcc ak yi moom ngir jox ko keneen mën a bàyyee kenn ku ne li moom loolu képp ku amul yërmaane si biir xol doo ko man kon yërmaane jooju lañ fas yéene waxtaanee te mooy li olof Njaay di wax naan lu ay di jàmbat lu xew waxu ndax ak internet bi réseaux sociaux yi képp kuy seetaan ressources sociaux wala nga nekk ci lenn ci vidéo yi di ko seetaan bu njëkk dañ naan wax ak mooy yàlla naan sàngara wala kuy sàcc wala kuy def nangam waaye léegi ku gis télévision yi ak internet bi vidéo yu graw ak graw garaaw ngay teg sa bët yoo xam ne boo ko xoolee bu fekkee ne amoo borom xol bu oyof nga sa àdduna mën na caa doxe bu fekkee dem tamit ku dëgër nga lu mu bon bonoon day jeexital ci yow bu fekkee ne ku xel ma matul la kooku day jàpp ne lii dañ ko war a essayer pour def ko vidéo yooyu ñi koy def da naan ñii est-ce que ay doomu aadama lañ est-ce que ay doom waxatuñ est-ce que ay julli lañ waaye da naan est-ce que ay doomu aadama lañ ndax nit mën naa bañ a nekk julli sax am xolub yërmande ndax ñoom dañ ko am yàllaa ko bind comme bàyyi may ñoo mën a am yërmande waxuma la ak doomu aadama vidéo yooyu boo ko dee seetaan da ngay gis ay doomu aadama yu ñu tër di rendi ay doomu aadama yu ñu tër di rendi te ña leen di rendi bala ñu leen rendi dañuy wax allahu akbar di wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah bala ñoo rendi doomu aadama yooyu mu mel ne que allahu akbar wala laa ilaha illallah tër di rendi ñi nga ko xam woon cim xar xar moo xar lañ xamee woon nga ne allahu akbar bismillah allahu akbar daal di rendi waaye léegi duma ma jullit ñi laay wax lenn ci jullit ñi lenn ci réewi jullit ñi dépassé nañ bàyyi may léegi léegi doomu aadama yi lañu tër di rendi bu ñu rendee tut ñu ngi dugg ci néegu yàlla yi néegu yàlla yi la ñuy dugg jël ay bomb li ñaan attentat dugg ci néegub yàlla fekk ñu am audience ak digganteem seen borom di ko jox li yàlla suñu borom ne leen inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquta ñu war a ñëw jox yàlla lim moom ab jullit jóge fële kuy woote wu boppam jullit daan na ñee day dañuy ay yëfar lañ xaaral ma dem rey leen daal takk bomb ñëw dugg ci néegub yàlla dugg ci néegub yàlla fekk yàlla di waxtaan ak di recevoir ay jullit yu gëm yàlla di jullit nga ñëw dugg daal di éclaté wu rey fa junni junni doomu aadama loolu moom xale yu tuututaan yi sax nga xam ne ñi ngi dugg ci facebook li ñu mën facebook wala yeneen yeneen site réseaux sociaux yi ñi ngi gis loolu di ci teg seen bët loolu doomu aadama mosu ko woon a ñeme fekk ñuy jàkkaarloog yàlla seen borom nga fàtt leen bu ñu waxee nga ne damay jihaat damay woote coon yàlla mu mel ne kon yooyu yëpp buñ ko dajalee gis ko ci biir monde islam bi te fi ñu koy gisee mooy monde islam bi la ñu koy gisee réew yi nga xam ne dañu leen woote ne ay julli lañ ci la ñuy gisee lu mel noonu nga xam ne daanaka léegi mën nañu wax ne bu doon lu ñu sollool ñu ne modd la boo xam ne nit ñi dañ ko nit ñi dañ ko bëgg xewal ko te mu wuuteeg lool li nga xam ne yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo tax mu sàkk ko suuf si ndax kenn wératu ne yàlla suñu borom bi muy sàkk suuf daa waxanteeg malaayika yi loolu malaayika yooyu dafa mel ne loolu ñu laajoon yàlla suñu ba su borom am lu mu leen tontu woon bind aadama ne ko waxal wa allama al aadama al asmaa kullaha summa aradu ala yooyu ñëpp dañuy wax ne borom dañuy wax ne mooy langue yi ñuy wax am nañu ko tuddee langue yi ñuy wax ñaata junni langue ñoo nekk ci biir adduna bi te loolu lépp mi ngi soq ci aadama am ñu ne kawtéef yi yàlla suñu borom doomu aadama yi wane ci wàllu xereñ loolu la yàlla suñu borom xamaloo aadama te malaayka xamuñu ko ndax malaaka yi ñu bari dañoo jàpp ne xam nañ lépp waaye ñoom dafa am uniquement lu tax yàlla su borom sopp bind leen ndax dañuy wax ne yàlla dafa bind ñeent kenn ku ne mu am lu mu la jox yàlla dafa ban xalaqal malaayika lil xidma malaaka yi li tax yàlla bind leen du dara lu dul service nekk service su mboroom rek wa xalaxal jinna lil qudra mu bind jinne yi jox leen puissance ñu am kàttan fu ne ñu mën faa naaw dal lu ne ñu mën koo def wa xalaxal seytaane mu bind seytaane lil laana maanaam ngir nit ñi di ko rëbb di musu ci moom waaye wa xalaqa al aarifina al aarifina billaahi lil mahabba waaye yàlla bind nit yi yàlla yi ngir ñu war leen sopp kon wax naa ko ci waxtaan yu bari ma ne kon yow nit ki bu fekkee ne nekkoo malaayika nekkoo seytaane nekkoo jinne nekkoo nitu yàlla te kenn ku ne yaa xam sa bopp kon fa si yàlla jox na la beneen occasion beneen chance boo xam ne mën ngaa bokk ci groupe boobu muy groupe bu cinquième ñooñu mooy nga bëgg nitu yàlla kon ku mel ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara kon malaayka yooyu rek bi ñu waxanteeg suñu borom dañoo ne ko ndax da nga fi indi ci kaw suuf kuy tuur deret suñu borom nee na waaye bu ñu xoolee jamono bii ñu toll ci vingt-et-unième siècle ci 2015 ak lu ko jiitu day mel ne malaayka yi yay nañ aadama malaayka yi doon waxtaan ak yàlla suñu borom dafa mel ne dañoo yay aadama rawatina nag musulman yi rawatina jullit ñi mooy tuur deret mu xew lool nit ñi di rayante biir musulman yi di rayante seen biir kon feebar boobu feebar boobu tax nit ñi reyante seen biir boo demee Nigéria gis nga bokk xaraam li ñuy def tey jii mi ñu wax ak yéen réewu naar yi ba ci Arabie Saoudite gi nga xam ne moom lañ gën a jege moo gën a jege ci diine ndax yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga tëdd madina Kaaba ga nekk fa ñuy aji tey jii ñu ngi ci problème bay wut ñu leen wàllu xeex yu métte métte te ñu ngi xeexal seen biir duñu ay yéefar ay musulman ñu ñoom la ñuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu kon lan moo waral problème yooyu nit ñi di ko dund jamono bu tel nii te ñun ñu gis ne Sénégal réew yi tàkk yépp yi ñu wër muy réew musulman yi ba ci réew yi ñu jege Mauritanie ak Mali fu mu mën di doon ña ngay jaxasoo Mauritanie naam xeex am fa waaye xam ngeen ne liberté am fa ndax coup d'état guddi coup d'état bëccëg mais kon lu tax ñun Sénégal ñu mucc ci mucc googu ñu ci mucc nag moom lañu ñu war a càmbar jàngat ko ndax kenn ku ne xam ne Sénégal jàmm rek la bëgg kenn ku ne xam ne sénégalais. yar nañ ko ci yariñ woo xam ne néeg na néegaay goo xam ne am picc rek boo ko doon kutt ci kanamu sénégalais da gis ni muy lox loxee yaram bi waxuma laa di rendi doomu adama yooyu nag nga xam ne am na ci xolu sénégalais mu néeg lool boo gisee kuy noggutu nit yaa ngi da ngay jug sénégalais li xew fi Sénégal rek la xew mooy romb nit ñu koy agressé romb nit ñu koy lottal doole nga jàpp ci jël xeex ba loolu Sénégal rek la am moo tax réew mi am jàmm waaye yeneen réew yi amu fa koo romb ñu koy lottal wala ñu koy agressé yoon du ci nekk da ngay romb rek jàll loolu nag Sénégal rek la am moo tax réew mi dal ndax kenn ku ne boo bëggee lottal nit danga nga bàyyi xel ne ah lii kat boo ko defee bu nit ñi ñëwee sama kaw la ñu dal moo loolu lépp nag dañu ko yar ñun Sénégal yi Sëriñ Tuubaa si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul yar ñu ci namputal ci njabootam gi ba nii may wax ak yéen ni Sénégal ku leen gën a nekk ci askan yi amul néeg nañoo rendi am picc ni ma la ko waxee waxuma la ak tiim doomu aadama di ko rendi wala ngay dugg ci biir jàkka di def ay attentat suicide loolu li ñu ko may lañu war a càmbar jàngataat ko te lol liñ ko may moy yirmane ar rahma ar rahma ilahiyya. koku lañ fassiyene bëgg waxtane waxtaanee ah, yàlla ya borom li mu ci wax yonent sallallahu alayhi wasallam serigne touba Cheikh Amadou Lamine Bara ndax xew-xew bu ne dañ ko wax di ko càmbar di ko jangan. ndax dañ wax nit bo xamee sa febar doomu adam buy dox fi xam sa febar bo amone tension tay nga dem médecin ñu la ah sa yaram kat da nga amé tension nga am jabet nga dem médecin ñu la ah da nga amé jabet da ngay tambalé moytu di fagaru do lekkiti sukur su bari bu dee leneen la doo ko defeti kon nag am na feebar yu gën a garaaw yooyu feebar yu gën a garaaw tension gën a garaaw jabet gën a garaaw yu mel noonu mooy feebaru xol bu wow xol bu wow xol boo xam ne néeg maanaam néegu def dara ci kaw suuf doomu aadama bu njëkk tëraloon wala sa doom sax man ko ko rendi ngir lan jàpp jàppee ko déggi du diine donte bokku leen ay jubluwaay sax man ngaa tiim sa doom di ko rendi waxuma la ak sa ab jàmbur kon feebar boobu moo gën a garaaw ci feebar yi mooy xol bu moo tax ñu fas yéene kon bëgg a nammaat xol yi ci yërmande jooju ko xam ne yàlla suñu borom moo ko bindal boppam ndax yàlla dafa wax ne kataba rabbuka ala nafsi rahma yàlla mu njëkk wax lu mel ne muy yërmande yërmande yàlla da ko bañ ba ne man yàlla dama bind ci sama bopp di borom yërmande yàlla moo wax loolu ndax yontu sanaasam xibaar nañu ci xadis ne yàlla am na mbindum bind ca kaw arash bi mu bindee doomu aadama yëpp ba pare bind xalaaiq yëpp ah awaalim yi mu bind leen yonent sallallahu alayhi wasallam suñu dafa bind benn mbind taf ko ci kaw aras nee mbind moomu yàlla da caa wax ne sabaqat rahmati qudd maanaam maanaam xadabi loolu la yàlla yonent sallallahu alayhi wasallam wax mu ne suñu borom nee na sama yër sama yërmande dafa not sama mer sama yërmande dafa not sama mer kon yàlla mooy borom yërmande yërmande jooju nag incha allahu lañ fas yéene kon waxtaane bu ñu xoolee ci téere bi yàlla suñu borom muy bi nga xam ne mooy constitution jullit ñi ci ñu ci delluwaat suñuy atte bu ñuy julli bu ñu woor bu ñu natt asaka bu ñu tudd bu ñuy xew yooyu yëpp ci wàllu dañuy delluwaat ci téere bi nga xam mooy téere bi yàlla ci kaw suuf buñ càmbaree téere bi yàlla suñu bi la ko tàmbalee suuratul baqara ba ila minal jinnati wa naas ila jinnati ila ila naas gis ne saar woo ci jël ci saari alxuraanul karim yi suñu borom mi ngi ko commencé bismillahi bismillahi mooy turu yàlla wu sell waaye lan la ci yàlla suñu borom teg arrahmaani arrahim loolu tax yàlla teg ba mu des suuratul baqara suuratul baraa suuratul baraa rek ngay fekk suñu borom commencé ko amul bismillahi rahmaani rahim loolu nag kon am na message bu yàlla suñu borom bëgg wax ak musulman yi am na message bu yàlla suñu borom bëgg waxat pas musulman sax mais mooy doomu aadama yi le fait que yàlla bu nee bismillahi turamu tell wi mom yàlla sun borom bu ko neexoon mu tek ci al azim yàlla mu màgg bu ko neexoon mu tek ci al kabir yàlla mu reymi wala al mutakabbir wala al jabbar wala al qahhar bu ko neexoon yàlla sun borom tek ko ci tur yooyu nga xam tur yu lu la bu ko defoon yàlla sun borom tek ko ci waye déedéet yàlla da rocc ci tur yooyu tek ci bismillah ar rahman yàlla mi yërëm bépp doomu adam bo xam yàlla bindal ci kaw suuf man yàlla ma lay yërëm daal ci tegaat ar rahim mënoon naa doy nag ne ne ne àdduna waaye yàlla ci tegaat ar rahim man yàlla kat man maa ar rahim mi nga xam ne maa leen yërëm ëllëg yowmal xiyaam kon loolu am na message bi yàlla suñu bëgg wane bu ko defee kon loolu jullit ñi war nañ koo jàngataat musulman yi damay wax ne fii ñu toll la ko tàmbali Arabie Saoudite ba agsi Sénégal Sénégal nañ sant yàlla ndax ñun yàlla dimbali lañu waaye bu buñ jàngaatoon alxuraanu karim càmbaraat ko seetantalaat ko gis yàlla ni bu tuddee boppam yërmande kon xeex yi ngeen gis ci monde musulman bi du am terrorisme bi ngeen dégg ñu koy jiiñ l'islam te naam ñoo ko def ndax sam noon bu fekkee ne dalay wut dalay wut wut amula dana fexe dugg ci sa biir bu duggee si biir jël borom bopp yu oyof ñoo bëgg àdduna wala ñu bëgg alal ñu ger leen jox leen alal ne leen ngembu leen ne leen xeex leen attaqué leen ñeneen te boobaa biir kër gi kese lay doon bu ko defee ñooñu bu ñu jógee di attaqué di xeex bu ñu jógee di attaqué di xeex bu ko defee ñu ne waa xool leen kon musulman yaa ngi ne darante nga xam tey turu l'islam wallahi ñuy tukki dem Europe wala ñu dem Amérique wala ñu dem ci réew yi di réew julit foo tuddee islam da ngay gis tubaab yi sens seen kanam foo tuddee islam da ngay gis ñuy tiit di rag-rag yi ndax lan guddeeg bëccëg ñi ngi leen wan image yoo xam ne rayante les islamistes ngay dégg les jihadistes attentat ñoo ko def nangam ñoo ko def nga xam yow musulman bi sax sénégalais yow da ngay xool da ngay toog bi sax ngay dal ci ko musulman yi nga naan ay waay li ëpp na nangam nangam loolu lépp li ko waree mooy noonu yi ba ñu bëggee am mënuñ ñu am dañoo jaar ci biir borom bopp oyof amee ñu ci moo tax lu xew tey rayante bu xew rek da gis ne loxo loxo lenn ci musulman yi mucc ñu ci kon bu ko defee kon bu ñu jàngatoon lii suñ borom wax ci alquranu karim arrahman arrahim kon boobaa danañ xam ne yàlla kat yërmaan la fees dell biir alquranu karim bu ñu ci delloo dañuy fekk ay qualité yu baree bare bari yàlla suñu borom di ko misaal yontu salaam su indi ko ndax yontu salaam bu leen fàtte nee na innama bu'isu li utammima makarim axlaaq yàlla damaa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi jikko yu rafet yi dañuy wax ne bi ci njëkk jiitu jikko yu rafet bi ci njëkk jiitu mooy arrahma ndax nit bu amul yërmande muntu am leneen leneen lu am du saf yàlla suñu borom doomu aadama bu amul yërmande loo tabe tabe tabe loo baax baax baax ak lu ñu mën a tagg te sa xol bi amoo yërmande yàlla suñu borom du ko soxla moo tax buñ teelee ci alxuraan karim dañuy gis qualité yi yàlla suñu borom waxoon yonent salaasam ne qualité yi moo tax ma yónni la qualité yooyu dañ ciy fekk li ñu mën tuddee as sidduq mooy sincérité dëggal fekk ci as sabru muñ fekk ci al afu mooy baale di pardonner fekk ci al karamu mooy générosité tabe fekk ci al amaana mooy kóolute lu ñu la dénk nga téye ko te doo ca doo ca def benn mbuxum fekk ci al wafaaw mooy matal kóllëre yii ay qualité yoo xam ne yàlla su borom daal yónni yonent sallallahu alayhi ne ko dama bëgg nga matale ko nga jàngal ko àdduna bépp képp ku wax a an laa ilaha illallah laa nga ko ci xiital jàngal ko ci waaye bu ñu gisee mbooleem qualité yi yépp dafa ñëw ci alxuraanu karim mboolem qualité yi ñu wax dëggal muñ baale jëllale tabe am kóolute matal kóolëre yépp ay xeeti jikko yoo xam ne dañoo ñëw ci alxuraanu karim waaye bu ñu xootee baatu yërmande yërmande bu ñu doon wax ne ab course bu ñu daw la yërmande jiitu na leen junni at yërmande junni junni at ñoom départ guñ yërmande moom la yàlla su borom gën a jiital ci alxuraanul karim te lim tudd baatu yërmande ak mboole mustaqaat yi xam nga ci am ëpp na trois cent quinze fois trois cent quinze fois su suñu borom tudd na ci yërmande ci biir alxuraan karim tudd na ko ci yërmande biir alxuraan karim bu ñu xoolee li ñu mën a tuddee dëggal nit ki dëgg nga ne ah nit ki dina dëggu dëggal googu bu ñu xoolee cent quarante cinq fois la ko yàlla sumur bind tudd ci alxuraan karim bu ñu xoolee asabru mooy muñ te Sénégal loo wax ñu ne la muñal muñ quatre-vingt-dix fois la ko yàlla sumur tudd ci bu ñu mënee tuddee baale pardonné yàlla mi ngi ko tudd ci alxuraanu karim 43 fois tabe yàlla ngi ko tudd bi di alxuraanu karim 42 fois maanaam maanaam matal kóllëre al wafa yàlla ngi ko tudd ci alxuraanu karim 29 fois al amanatu am kóolute lu ñu dénk ak service boo mën a yor ak foo mën a nekk nga bàyyi xel ne yàlla suñu borom mi ngi lay xool ba doo ci def benn mbuxum yàlla tudd na ko ci alxuraanu karim 40 fois ñu gis na kon yërmande ñëw na 315 fois suñu borom bind ko ci tudd ko ci yërmande moo tax barki démb gis naa état islamique am na benn journaliste allemand boo xam ne dafa demoon ci biir geer bi ndax moom yàgg naa dox ci wàllu guerre yooyu ba taliban bi muy nekk ci digg doole demoon na fa xam naa yàlla ko suturaal ndax gars yi moom ku ñu jàpp na dañuy rendi waaye yàlla suturaal na ko man maa ko seetaan direct Al Jazeera ñu def ci benn émission boo lañ ko tuddee sax boobu bi mu ñëwee mu ne li mu gis foofu ci réew naar yi ñiy rayante dafa xool bi jàng mu ne est-ce que ñii yërmaande bi nga xam ne seen alxuraan ji yàlla suñu borom moom la wax nga xam ne amul benn saar booy tudd ci alxuraan karim lu du wax bismillahi arrahmaani arrahim mu ne ñoom xanaa jàngul ñu rahmaan rahim boobu yàlla suñu borom wax ne man maa yërëm sama jaam ñi ma sàkk ci ko suuf maa leen yërëm àdduna yërëm alaxira mu ne xanaa ñoom dañoo jàngut lu mel noonu man gis naa Quran mais li ma gis amul benn saar boo xam ne yàlla commencé ko bismillahi rahmaani rahim xanaa ñoom jànguñu lu mel noonu effectivement wax na dëgg bu ñu ko jàngee tamit comprendre ñu ko dégguñu ko waaye bu ñu ko déggoon comprendre ko li ñuy def di rey ay jullit seen moroom jullit waxuma la ku du julli sax waru ko rey waxuma la ak sa moroom jullit di leen rend di leen tër kon yërmaande jooj bu ñu ko amoon li ñu def tey duñ ko def moo tax yàlla lim bi mu bind ci alxuraanu karim nombre bi mu bind ci alxuraanu karim du hasard ndax alxuraanu karim chiffre boo gis ñu chiffre ko ci alxuraanu kar dara du ci hasard alxuraan lenn amu ci hasard tey jii boo doon jeex sax day jékki-jékki tiim alxuraan karim ne xaaral ma xool lim nangam lim nangam boo ko limee ba mu jox la lim bi xamal ne loolu du hasard yàlla amul benn xaraf wala benn baat wala benn verset ci alxuraan karim boo xam ne yàlla wàcc na ko ci mu nekk loo xam ne da koo jékki-jékki te sànni ko na ko muy hasard déedéet lépp da ko organiser lépp du ko bind lépp da ko da ko da koo détaillé kon moo tax musulman yi war nañoo xamaat yërmande solo si ci nekk bañ mën ko dund tax buñ gënee xool. yàlla sun borom ci yermane googu yontu salaasa wax na ci xadis mu inna la khalaqa yawma khalaqa samawati wal arda miata rahma kullu rahmatin tabaqa ma bayna samaa wal ardi faj'ala minha fil ardi rahmatan fabiha ta'tifu al walidatu ala waladiha wat tayru ba'daha ala baadin fa idha kana yawm al qiyamati akmalaha bi hadhihi rahma khol hadith bob nim mu dawee yaram ak nim yeme yéemee yentu salaasa ne sun borom bim binde yermane ba def ko ci bopam pare da jël yermane xaaj ko temeri xaaj cent fois la ko suñu borom xaaj mu yàlla garde quatre-vingt-dix-neuf xaaj yi yàlla da ko téye jël benn xaaj kese tàbbal ko ci àdduna te yenn sens neen xaaj bu ne ci cent xaaj yi xaaj bu ne toll na asamaan ak suuf xaaju yërmande bu ne toll na asamaan ak suuf yàlla denc juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yërmande yi wàcc benn ci kaw suuf yenn sens neen benn boobu yàlla wàcc ci kaw suuf ci gis doomu aadama yi seen biir ngeen yërmante kenn ku ne am xolub yërmande ci sa doom boo ko juree wala sa mbokk wala sax sa mbokku doomu aadama boo gis muy dox nga am ci moom yërmaan di ko yëg di ko sentir waaye yontu sansam nee xaaj boobu ci la ci ngeen bokk ak bàyyi may muy les animaux ci ngeen bokk ak ñoom ba ngeen gis fas wala nag wala ñay mi gën a ponkale bu juree doomam day yëkkati tànk yi ngir néeg koo dëgg ngir yërmaande jooju yontu sansam nee kon benn yërmaande boobu ci la doomu aadama yeeg fi yeeg ñëpp di ñeewantu seen biir yàlla nag bi ci des nag dama koy denc juróom-ñeent dama koy denc bu ëllëg yowmal xiyam ndax yowul xiyam yowul xiyam dafa yimi fa la nit ñi gëna soxla soxlaa yàlla sun borom yowul xiyam motax 99 yëpp yàlla neena dama koy denc ëllëg yowul xiyam yowul xiyam xam ngeen ne mana idha sa idha samaa saqat wa adina rabbuhu qat wa idha al ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhalat wa adina rabbuhu qat ya ayyuha al insan innaka kaadu ila rabbika ba ila akhir suura saar rek doyna xam maanaam ragal gi wala boog tiitaange gi gi nekk ci yow ma xiyam ni ko suñu borom misaal ci bisu penc asamaan si ngeen gis day jekki-jekki xar toj bu saa di taxaw asamaan day xar toj bu tojee xar biddiw tasaaroo montagne ci kaw suuf dañuy mokk rumbux montagne ci kaw suuf yéen tu salancé ne montagne yi dañuy mokk ba mel ne ba mel ne maanaam ni ko alxuraan waxee alxaariatu malxaaria wa ma adraka malxaaria yow ma yakunu naasu kalfaraasil mabsuus mabsuus mabsuus wa takunu jibaal kal aynil manfuus noonu ko alxuraan waxe kal man manfuus nga xam ne alqaariatu mal qaaria qaaria mooy genn kàddu goo xam ne malaaka mi bu ko xasee ba yuux fu doomu adama nekkoon ci kaw suuf wala bàyyi ma da nga ne jàkk taxaw am na ñoo xam ne kàddu bi ñu ko déggee dañuy xëm am na ñoo xam dañuy tiit ba mënuñoo taxaw am na ñoo xam dañuy daanu kenn du leen gisati kàddu googu sax day dem bu ruyal montagne yi waaw day dem ba ruyal kal aynil manfuus wala ci ka takunu jibaal kal aynil manfuus day ne maanaam soit soit ni muy nooyee bokk làmbe noonu lay mel bu ko defee yàlla suñu borom tàllal suuf si yawmatu baddal ardu xayral ardi yàlla day tàllal suuf si échangé ko beneen suuf soo xam ne beñ bu tàng jër lay doon boobaa yentu salaasam nit ñi danañ tiit te taxawaay ba xam si ne alfa asanada maanaam juróom fukki junni at la doomu aadama yi taxaw kon bis baaboo xam ngeen ne doomu aadama lu mu dund dund dundam mënut a ëpp bu ëppee cent ans la ci des du ci mën a dara waaye junni at juróom fukki junni at la doomu aadama yi taxaw kon foofu la nit ñi gën a soxlaa yërmande moo tax juróom-ñeent fukki juróom-ñeent ëllëg yomal xayaam boobu la koy wàccee kon ñu war a bàyyi xel kon ci yërmande ji nga xam ne kon moom lañ ko moom lañ moom la ñuy bu ñu agsee ci yontu sallallahu alayhi wasallam yontu bi sallallahu alayhi kenn ku ne xam na ne moom yërmande uniquement sax moo tax yàlla su borom yónni ko yërmande kese kese wa maa arsalnaak illa rahmatan lil alamina loolu ko yàlla su borom wax yow daal envoyé yu mu la lu dul yërmande moo tax ma envoyé la kon wute nag baax a baax a baax ñi nga xam ne suñuy mbokki naar lañ ñi nga xam ne mbokk arab lañ comprendre kon lu tax yontu sallallahu alayhi su bur yónnoo ko ci ko suuf bu ñu ko comprendre noonu lii am duñ ko def ndax ko xam ne uniquement yërmaane moo tax yàlla su borom envoyé la ba mujj yontu sans sam joxuñ boppam ne innama ana rahmatun muhdat man damay yërmaane boo xam ne yàlla dama leen a may yéen yéen doomu aadama yi yërmaane la yoo xam yàlla dama leen jox cadeau kum neex man ngaa jël yërmaane dugal sa bos te ni ko dugal sa bos mooy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah kon yonent bi sallallahu alayhi bu fekkoon ne naar yi comprendre nañ li nekkoon mission li tax yàlla su boobu yónni ko ci kaw suuf te waxu dama laa yónni ngir xam-xam dama laa yónni ngir alal dama laa yónni ngir nangam déedéet wa maa arsalnaak illa rahmatan lil alamin loolu ko suñu borom wax yónni ma lu dul yërmande kon bu ñu ko comprendre xeex bii am ba tiital ñëpp gis ngeen fan yi sax gouvernement yi jug nañ ñëpp jug nañ di def ay organiser ay waxtaan naa nañu waxtaan ci terrorisme bi waa ji ñëw wax nañ dëgg nañ ci waxtaan yee Sénégal am na ñoo xam dem nañ sax ba ne dañoo war a fonkaat suñu kilifa diine yi ah ba mu jotee yàgg na am na ñu ko jox ay politiciens yu mag wax ne dañoo war a fonkaat suñu kilifa diine yi islam confrérie bi ñu am biir Sénégal dañ ko war a téye ndax wax nañ dëgg Sénégal ba muy Sénégal ba léegi mosuñu fi dégg coup d'état Sénégal ba muy Sénégal ba léegi ñu fi guerre guerre boo xam ne suñu biir lay doon donte sax du musulman mais guerre ethnie rek mosu fi am mosu fi am ñëpp dañuy dund jàmm ak salaam l'islam bu dal bu sell boo xam ne li ko waral du dara lu dul Sëriñ Tuubaa si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul ak mag ñu baax ñi nga xam ñoom la fi nekkaloon kenn ku ne benn sa koñ di woon nit ñi di leen xirtal ci lu baax loolu tey rek moo ñu ma ñu mel nii kon nag ndokk yàlla alhamdulilah bi nga xam ne état bi xam nañ lu mel noonu ba mujj wëlbatiku ne nekkoon chef de lycée war nañ leen a jàppale doole leen bañ mën a gën a tàggatat sénégalais yi ak génération bi ñëw pour suñu réew mën a am jàmm kon yantu salaa salaam moom dafa nekkoon inima yërmande yentu salaa salaam yërmandeem sax day dépassé sax yonent sallallahu alayhi wasallam yërmaanam day dépassé ya? ndax yonent sallallahu alayhi wasallam pédagogie bi mu daan jàngale dafa yéeme nim dan daan day tok bi tiag sahabi wër ko mu ne ci ne ci ci bi tiag gay yi ah mom lu bëgg a wax di mu ne ci ñu ne tek mu ne ah amna ci jamono yonent yalla Moussa day benn soxna su jigen soxna so xam dafa bëggoon dom lool mënu ko am mu ñëw ci Moussa ne ko dama bëgg nga ñaanal ma sa borom mu may ma njaboot ju bax ñaana ma yàlla sa borom mu may ma sët bu baax ndax ëmm doom Moussa daal di jug daal di jàkkaroo yàlla ne ko soxna see day nee na daa bëgg nga may ko doom sun borom ne ko yaa Moussa katab duhu aqima katab duhu aqiman soxna so dama ko bind muy ko war a ku jaasir kooku du am doom Moussa daal di ñëw wax ko soxna si ne ko ah man day ñaan naa sa borom waaye sa borom nee na dalaa bind ngay jaasir de soxna si te toogaat ay weer ñëwaat musa ne ko Moussa ñaanama yàlla sa borom mu may doom def ko ba muy trois fois Moussa la ko suñu borom tontoo tontuwaat ko te yàlla xam nga lu mu la wax rek noonu lay demee waaye ñu toog ñaari at Moussa gis soxna si gis ko mu ànd ak benn doomam di gillante ak moom benn xale boog benn xale bu góor la di gis moo ànd ak moom Moussa daal di ñëw nuyu Moussa Moussa ne kii kan la mu ne ko ah kii de sama doom la Moussa ne sa doom mu ne ko waaw te Moussa kalimullahi day wax yàlla profet la te yàlla nee na kii dama ko bind muy ku jaasir mu loolu jaaxal Moussa nan la. yalla man ko wax ne ko ki dama ko bind mu jasir bare mu jek jek gis soxna ci am dom musa dal di juk dal di déel ak yàlla sunu borom ne ko ah yow yalla yow ku tedd gi la nga waxon de loolu moy li am te sa wax mu ñaanal mako mu am dom ma dama ko bind mu jasir soxna ci dal di wëlbatiku jël sama turu rahim bi nan ya rahim ya rahim yow yalla mi yërmaane tek ma may dom tek ma may dom musa ne na borom ne ko lolou la kon di wax ba mujj sun borom ne ko xaw musa sabaqat rahmati qudrati sama yërmaande dafa jiitu sama kàttan ak samay dogal moo tax soxna si bi ma ñaanee ne ma yaa rahim may ma doom ak li ma la wax lépp moo tax mënutuma téye sa bopp mënutuma téye sama kàttan moo tax man yàlla suñu borom may ko doom xool leen loolu yentu sansab netti loolu saxaaba yi saxaaba yi daat koy dégg danañ xam ne kon yàlla kat nekk jullit bi kon bu décoration ci ñaan ak loo mën a bëgg yentu sansam di ñu gën a misaal di ñu gën a misaal sax pour yërmaande yàlla su borom ni nga xam ne jéggi na doomu aadama yi yentu sansam jël bàyyima yi bayyi mi la jël dal de ah ci am ko xamne ma nga sawara sawara malaki diko diko mbugal tahabay dar sen gimiñ ne ko ah wa koku mom lan la wara def yontu sallallahu alayhi wasallam de lam def moy ñak yërmaan rek ñu ne ko ñak yërmaan ci naka mu ne koku dal soxlu su jigéen lool xamna naa jigéen ñi nag lu bari li ñu misaal ci l'islam ci ñom ci ñom la jógee waye lool lepp bëgg a ndax jigéen moy moy moy mooy société mooy lépp loolu lépp ngir joxe exemple ngir ñom ñu gëna dolé gor gorlu ndax buñu jagge rek société bi jagge yontu salaa sallam ne soxna soosu dafa jëloon am muus am muus dégg ngeen de am muus la jël tëj ko ci ab néeg bi mu ko tëjee ci néeg bi muus mi war a lekk mu koy xor ñoñal jox ko mu lekk jox ko mu naan muus bi xiif a xiif bay mar moket yeeg ak la fa nekkoon mu bàyyi ko bu muus mi faatu bi mu faatoo suñu borom faat soxna si wax malaayka ne ko yu dugal leen ma ko sawara ndax ñàkk gim ñàkk yërmaande ci muus mi bin te muy bàyyi ma kon yóbbu leen ma ko sawara yaas billahi taala kon anamook ay waay anamook ki naan ah, ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu muhammadu rasulullah nga dib julli ni moom jël ko kit kidnappé ko waxatuñ la nga jox ko mu lekk mu naan waaye da nga ko sumbi ba mu rafelewu nga tiim ko jël paaka di rend ci kawam jël paaka di ko rendi loolu ku seetaan réew yu islaam yi réew yu musulman yi gis nga ne loolu mi ngi ci ñoom ba jeex takk wala yaasu billahi taala xam ngeen ne ko yàlla bu ma nee pindir doomu aadama ci muus waxuma laa koy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu muhammadu rasulullah yenn sens yi mu foofu bi jaag mu ne sax am na koo xam ne ma nga àjjana di xéewu ñu ne ko ah waa kooku lu mu def mu ne ab xaj de ab xaj ko yóbbu àjjana de yentu saas ne ab xaj xaje ko yóbbu àjjana mu ne soxna la soo xam ne da mooy yàlla yentu saas ko nett da daan njaaloo di mooy yàlla bàkkaar bu ne def na ko benn bis mu romb ab teen gis benn xaj mu mar bay xab suuf si yentu saas nee na soxna si xool xaj bi bi mu ko xoolee xolub yërmaande dugg ci biir xol bi mu rëg-rëg yi yëngutu mu ne ay waay kii de bàyyi ma la ma la de waaye am na bakkan de te daa mar waaye man teemaa koo may ndox mu naan nee mu daal tekk musóor gi moo tax yàlla suñu borom tàbbal ko àjjana kon yow ana ana mook sa yërmaande ji nga amal làqal sa morom jullit kooku gan fay lal yàlla su borom nar a fay ëllëg yow ma xeyam waaye yow jullit bi ana ñàkk yërmaande gi nga amal sa morom jullit ba tax nga koy lor ba tax nga koy nga koy iñaane ba tax nga koy def yu baree baree baree bare ngir bëgg koo des maanaam maanaam maanaam maanaam effacer société bi kon ñàkk yërmaande go boo xool ëllëg yow ma xeyam yàlla lan la ci yàlla suñu fay kon moo tax damay wax ne message yi yonent sallallahu alayhi wax jullit ñi bu ñu ko comprendre monde islamique bu ñu comprendre noonu wallaahi laasim l'islam day gën a jëm kaw nit ñi dañ koy gën wuti nit ñi dañ koy gën a sopp moo tax am na benn iranien bu fi ñëwoon jamonoy passé ginnaaw benn iranien bi ñëwee xool Sénégal jàngat ko càmbar ko Sénégal li ñuy dundee maslaa bi jàmm ji yërmaane ji moom da ko wax da ko wax télévision ñëpp seetaan boo demee site internet yi yëpp dañu ko doon wane mu ne islam bii mu gis Sénégal daal. islam jàmm ji ak dal gi ak yërmande bi ak masla bi ak laabirinte gi nee na bu soñoon islam bi dañ ko exporté dañ ko war a génne wane ko ci réewi arab yi Iran Arabie Saoudi Yaman Irak libi nee na fépp lañ ko war a yóbbu pour ñu jël l'islam bi wecce kook l'islam ñoom bi ñu yoroon pour ñu mën a dund ci jàmm ndax li Sénégal ñoom ñoo comprendre diine ñoo comprendre l'islam turu li muy woote mooy mooy mooy paix xam ne kon bari na kon ñu nekk Sénégal xamuñu li ñu am xamuñu diine ju ñu am moo tax sénégalais daa war a xam lim am kon moo tax waxtaan yu am waxtaan yu mel ni baax ngay xam yow li nga téye ba tax kenn du la mën a jommal naar bu weex ak ku xonq ku mënti doon bu ñëwee sa kanam ak lu ma a du doole jommal ñàkk ngee xam moo tax da ngay gis koo xam ne bu génn rek tàmbale roy ci naar yi wala bu gisee benn koo xam ne jóge na ci réew yi naar yi jàng rek jël seen culture au lieu mu jël l'islam bu ñëwee bu dee waaraate rek ñu taw ñu ñu lu leen wax ñu gëm ko bu leen leen sax da ngeen yéen di ngeen jullee kenn di ko jullee da war a téye seen loxo nga gis gars yi daal di kaw bàyyi lu mel noonu loolu la complexe la ak ñàkk xam li nga doon waaye boo xamee li nga doon ak li nekk ci yow benn naar bu lay jommal moo tax Serigne Touba si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul teel ñoo xamal ci masaliku jinan fa lay si yu jub sawaadil jismi safahatal fata aw suu al fahmi lii la Serigne Touba waxoon ci masaliku jinan ne yow nit ku ñuul gi gëmal sa bopp xamal na sa der bu ñuul bi sa peau noire bi bu mu tax nga jàpp ne da war a nekk nit ku war a tardé nit koo xam ne foo toll dañuy jiite nit koo xam ne yow bu dee àdduna dañuy gide bu dee àllaaxit dañuy gide loolu Sëñ Tuubaa bi mu koy wax xam na yàlla xamal na ko nit ku ñuul complexe bi xaw a nekk ci moom moo tax Sëñ Tuubaa teel ci tàggat taalibe yi boo gisee murid yi sax wax dëgg yàlla ñoom complexe boobu xëy na néewut ci ñoom ndax fa gën a ñàng fa gën a doy waar ci réew yu Europe bi ak ci réew yu lislaam yi fa nga leen di fekk ñu sol seen bàyyi laa fa nga leen fekk ñu sol seen caaye fa moom la ñu waree loolu lépp nag culture bu Sëñ Tuubaa sotti muridis bu jëmbat ko ci ñoom moo tax loolu mel moo tax loolu sax jeexital na Sénégal léegi daanaka damay wax ne amut murid amut tijaan ndax daanaka même li ñuy façon dund benn la même façon dund benn la léegi ñëpp kenn ku ne boo am si sëriñ da nga ko warmaal da nga ko téye boo demee ci biirum réew daayira nga fa ñu wane seen bopp kon loolu culture bu Sëñ Tuubaa doon ñu sol ci ñun la te loolu nag gis réew yi ñu wër muy muy muy réew réew réew yi africain yi muy Mali ak Nigéria ak Burkina Faso Côte d'Ivoire ak ñëw ñëpp amuñu amuñu benn culture ci lislaam fi mu lu ñu mën a def seen réew bu ñu demee ci naar yi ñoo leen jiite boo demee Mali naar yee ko jiite ndax naar yi jiite gi ñu ko jiite moo tax gis ngeen leen tuwaare gi ñu xëy suba di attaque ay tubuktu di leen rey te pas-pas yooyu yëpp mi ngi jóge ci maanaam enseignement bi naar yi dégg ko maanaam bokk concept bi ñu dégg lislaam te fekk ne bokkut ak concept bi nga xam ne yoon sallallahu alayhi moom lañu moom la ñu tax nga gis leen ñu jug naan waa bàmmeel yi ko war a màbbu dañu war a def nangam nga xam seen discours yëpp discours yu violent lay doon yu radical lay doon ne daanaka da ngay gis jeunes yi a nag ciblé jeunes yi jeunes yi gën a ciblé jihadistes yi ngeen gis yëpp ci biir monde islam bi ay 25 ans la ñu am ay 30 ans jëm 35 ans ndax xam nañ ni yi ñooy daw wuti l'islam boo gisee Sénégal gi rek gis nga gars yi yëngal yëngalkat yi ak wootekat yi jeunes yi la ñuy gën a baril ndax ndaw ñi dañoo dañu dañoo dañuy bëgg lu baax ndaw day bëgg lu baax te day toll foo xam ne day tàmbalee jug wuti àdduna wuti yàlla suñu saa su ne du xam fu mu teg tànkam kum gis nga wax rek wax ji yim ko wala mu gis na nga jommal ko ci melokan mu da wuti la bu ko defé fekkee nak da nga amut kilifa yu bax yu tedd yu melne serigne bara cheikh mamadou layn bara yu melne serigne sëriñ soxib yu melne serigne sid al mukhtar mbàkke serigne muntaha ñu mel nonu nga am dañu fess dell ak yërmaane ken duñ bàyyi ken seen karam ngay nokutum picc waxuma malak doomu adama bo amul yu mel non nak man na la xirtati lu ne motax ngir gis leen seen yi dañ leen ci violence ak lepp lu man do motax ñu ray loolu mooy yërmande bi nga xam ne yontu salaa salaam misaaluñu ko waaye yontu salaa salaam gis na sax am na xadis bu mu wax xadis bu gën a leer yontu salaa salaam nee na man qatala usfuran abathan ajja ila llahi azza wa jalla yawm alqiyama yaqul ya rabbi inna fulana qatala nii abathan wala bi yaqtul nii li manfaatin yontu salaa dem na ba ne xanaa xamu leen ne ëllëg yawm alqiyama am picc am picc dina ñëw ci yàlla su borom di kalaame ak doomu aadama picc bu ñëwee ci yàlla su borom mi kat biñ nekk ci àdduna yow yàlla damaa kutt ray ma te da doon fo rek moo tax mu def lu mel nii reyu woon ngir lekk ma reyu ma woon ngir ngir ngir ngir ngir jëfandikoo ma waaye da daa doon fo rek daan may rey nee na loolu rek yàlla su borom dana ko atte diggante mi picc mi wala yaas billahi taala kon ana mbokk ki tiim sa morom julit jël ay bomb di attaqué jël ay arme di reye wa duñ sax nga xam ne yontu sans dem na ba daan wax ne na ngeen rafetal lu ngeen mën a def ci diine nañ ko rafetal hatta sax bu ngeen di rendi xar yi nañ ko rafetal ndax yàlla daa bëgg lu rafet nee na bu ngeen di rendi xar na ngeen wut paaka bu ñaw a ñaw a ñaw a ñaw nee na ndax ren di dafa amay charte paaka bi na ñëw ba nga xam ne xar mi ngi ren du ko yëg day mel ne balu fital boo ko dóor nee na boo tegee sa loxo doo yëkkatiwaat ndax bëgguñu ngay xool ñoo leen xar mi am na ñu bare ñoo bare ñoo xam ñi ngi rey waaye façon reyin bi ñu rey dangay ngay gis ne ëllëg sax mën nañ ci am ay bàkkaar mën nañ ci am ay bàkkaar yàlla sum ndax ni ñuy rendi baaxul yontu sallallahu alayhi wasallam wax lu mel noonu am xar ne la boo koy rendi da rafetal ndax yàlla daa bëgg lu yow waxatuñ doomu aadama nga jël ko nag jël ay paaka rendi ko li ci gën a garaaw nag mooy filmer ko filmer ko filmer ko tasaare ko ci àdduna bi loolu ay message yu ñuy lancé la ay ay code yu ñuy joxe la ngir ku koy seetaan te ëbbu ku la wàññi ku koy seetaan te comprendre l'islam da nga jàpp ne lii mooy listam bu ko dee nga da wuti lu mel noonu moo tax kon daa jot fi ñu toll société Sénégal ñu gën a xamaat buñ naago naam am na ñu baax nit ñu baax ñaa ngi fi waaye nit ñu baax ñi daan def nañ fexe di ko def mooy Sëriñ Tuubaa xam ngeen ne wax ci la mas a dëkk gindee ci la mas a dëkk bind ci la mas a dëkk Sëriñ Tuubaa bañ na ko waxtu julli bu mas a julli bu paree dana wëlbati ko jàkkaarloog taalib yi ak li muy xat-xat lépp ak li muy jox léppam boromam waaye xam na ne lii moo gën a nekk jaamu yàlla mooy xamle jàngale waaraate moo gën a nekk ak jaamu yàlla fuuf moo tax Sëñ Tuubaa fu ma si julli ba dana wëlbati def ay tomb tomb yooyu mu daan def day wëlbati di waxtaan ak nit ñi di leen yeet di leen yeet ci seen wàllu àdduna di leen yeet ci wàllu diine naka la ñu ne man def ba dund ci jàmm naka la ñu def ba xam li leen war kon rawat na jamono bu ñu toll nga xam ne occasion yu mel ni bëriwut ba daanaka at damay ne at ba at lañ ko waroon naa ëpp lu mel noonu waroon nañu def chaque semaine ñu def ay conférence yu mel ni nit ñi daje ñu gën leen xamal seen diina gën leen xamal lan mooy l'islam biir bi nga xam ne yàlla suñu borom moom la yónni yonent saa salaam moo tax kon picc rek ëllëg yom a xeeb dana yok dana yok dana yok ki nga xam ne da koo rey te rey bi mu ko war a rey jaaduwul xoolal yonent saa salaam yërmaaneem dem na ci bi yonent saa salaam yërmaaneem dem na dem na ba yonent saa salaam jabal aw xeer montagne montagne amul ruu man nga ne picc yi am nañu ruu bàyyi may am nañu ruu waaye montagne muy muy jabal uxut jabal uxut xam ngeen ne histoire dafa am jabal uxut histoire dafa am histoire bu rëy moo fa am ndax musulman yi dañ faa mas def xare bu métti ñu rey leen ci lu bare bare bare gañe leen ñu am fa defet bu rëy rëy rëy defet boobu ñu amoon ci jabal uxut moo tax dañoo def ba def ko gaaf am musulman yi commencé def gaaf jabal uxut am na ñoo xam ne bu ñu tukki sax bu ñu rombee bu ñu bana bu ñu naree romb montagne bi jaral na leen wiir ay kilomètre kilomètre ndax lan def ko gaaf ndax fi lañ mas a rayee jullit ñi fi lañ lañ gañoon gañe bu métte métte métte waaye yontu sansam yërmaane gi mu am nga xam ne bis taxaw na ci minbar bi di xutba jën wi mu daan teg loxo bi daan sukkandiku di xutba bi ñu demee ba bis ñuy dagg jën wi ngir war koo toxal defaraat jàkk ji jën woowu da doon da doon da doon jooy di yukkat ba yont sansam dégg jën wi li muy jooy kon nekkee jàngal lu am ru rek moy am sentiment moy yek waye lepp lu man don ci kaw suuf jaam yalla te da am lu mu yek wa imin shay illa yusabbi bihamdihi walakin la tafqahu tasbihum sun borom len amul benn mbir ci kaw suuf siis bi nga tok mi ngi sabbal yalla sun borom xeyna na yu yàqu dugul micro bi nga yor bi ngi sàbbal loo mënta yor bi ngi sabbal yalla sun borom motax jabal Uhud tam bindef la bu yalla sun borom sak motax jabal Uhud bobu yentu sanasam pour bëgg dellu suwat musulman yi ñu baña def mana li ñu mu tudde gafal, wala ay gafal yentu sanasam day ànd ak ñoom ba ci jabal ñu taxaw jékki-jékki gis Yonent sallallahu alayhi wasallam di wax ñu jàpp ne nit lay waxal ndekki montagne bi lay waxal Yonent sallallahu alayhi wasallam naan haaza jabalun yuhibbunaa wa nuhibbuhu ay am montagne a ngi nii day muy tund wii muy wu mag wii mooy jabal Uhud de dañoo bëgg ñun te bëgg nañ ko bëgg nañu te bëgg nañ ko loolu kon mi ngi indiwaat musulman yi ci montagne bi ndax loolu du ko neex montagne bi jàmm yàlla te bu sañoon musulman yi gañe fi waaye gañewuñ fi ndax ci dogal yàlla tegg bi ko musulman yi tegg tamit mooy gaay yàlla yi nit yàlla nga xam fu ñu dëgg seen tànk foofu day barkeel nit ñi teggee di ko teggi dëgg duñ seen tànk loolu mett na jabalu Uhud ba yont sens yëg na li na jabalu Uhud mu ànd ak musulman dem ba àgg fa wax ak montagne bi naan ko ay aw tund ngi nii de tund boo xam ne bëgg nañ ko mu bëgg ñu mu defee loolu la musulman yi doog dil siwaat nag seen xel tegg ba daan teggi daa ko fa jaar ñu commencé di fa jaar kon xool leen kooku dimension yont salaasam ci yërmandeem dimension bi mu yoroon xam dem na ba jéggi sax doomu aadama yi jéggi na bàyyi may dem na ba ci aljamaadaat yi mooy li ñu war a tuddee li nga xam ne amuñu ruux amuñu bakkan kon nag lool moo tax bàyyi xel la moo tax yentu salaasam teg na ci sax laa tunzau rahma illa min shaqiyin yentu salaasam dem na ba wax musulman yi ne leen xanaa xamul leen ne yërmaande yàlla du ko rocc ci xol mukk lu dul xol bu texee di kese la yàlla su mu rocc yërmaande waaye képp ku nar a texee da am da nga am xol bu yërmaande dana am loo yëg yonte sens daan daana wax bi jàg mu ne irhamu man fi ardi yarhamukum man fi sama ay dee leen yërëm ñi ci kaw su yàlla mën ne leen yërëm man laa yarham laa yarham ku dut am yërëmaande ci jaam ñi yàlla su ma doon yërëm moo tax suñ tubaa di ko xool bi jàgg mu ne ahmaduna rahmatuna hamiduna niamatuna mahmuduna farhatuna wal judu musri diyami lii la lii la suñ tubaa xool daa jàngat yonte salaa salaam jàngat ko ci xam ko ak xam ko ko yàlla su borom xamal suñ tubaa xool ko bi jàgg mu ne ci allah ahmaduna mii mooy sunu yërmaande de rahmatuna hamiduna mii mooy sunu xéewal de ni'matuna mahmuduna nii mooy muhammad mii farxatuna mooy sunu mbégte te tabeeb nga gàccaal na ay waame lii la yontu sanc lii la sëñ tubaa kañ yontu sanc ci wàllu yërmaande bi kon bu ñu dellu soo ci sëñ tubaa nag sëñ tubaa moom bi mu kañ yontu sanc ci yërmaande yi bu pare si ahmad bamba xaadim rasul moom ñaari baat yi ma leen waxoon ci alquranu karim mooy bi ñu ubbi mooy bi yàlla ne bismillahi arrahmani rahim suñ tubaa daa teel a comprendre teel a comprendre message bi yàlla su suñu borom bëgg ci kaw suuf ba tax mu yónnee yontu sanse wa ma arsa illa rahmatil alamin suñ tubaa daal di jël ñaari baat yu nekk bismillahi rahmani rahim ñaari baat yooyu muy bismillahi tekki arrahmani arrahim suñ tubaa jël ko bind ci xasida xasida gi boo ko liiree lépp muy xasida gu Buku ko bam tak jeex tak seigne touba yermane kese kese la ci yalla yalla su borom te yermane ji ñaanal nam ñaanal jullit ñi waaye sëñ Tuubaa mujj baye jullit ñi sax di ñaanal mbépp mi def yalla su borom sàkk ci kaw suuf muy ya rahman ya rahim rabbi bima maa rabbi bima maa yasraw rahmanu hab li jamii rahmatan ra rahmatan yughni ani sharri man quranuhu raa xoolal seigne touba li wax ya ra ya rahman ya rahim kon moo tax ñun li ñu am wallaahi bu ko naar yi amoon wala tubaab yi amoon ko ah damay wax nit ku ñu lu ci jote nit ku ñuul du jote ndax tubaab yi mbooleem lu ñu yàlla su morom jox ci wàllu xéewal gis ngeen Europe gi ñu yor rek muy ak xéewal bu metti gaa yi ngi bëgg gaal ga lu ne ñu ngi koy def ngir bëgg faa jote moo tax bu amoon ku mel ne Serigne Touba kenn du ci jote kenn du ci jote ndax comprendre gu comprendre yàlla dégg gum dégg yontu sansa moo tax mu jël arrahmaani rahim wooy ci xasida rabbi bi maa yasraw te xasida googu li gën a yéeme tubaab yi bi ñu njëkkee ñëw di Serigne Touba ci Kajoor ah, ci Bawol nga xam ne boobu la descente bi tubaab bi njëkk def ci kër Sëriñ Tuubaa boobu mag ñi gisaguñ sëñ xamaguñ sëñ ndax dañoo dégg dégg dégg dégg sëñ Tuubaa rek mooy tubaab yi yebal ay renseignement sec renseignement maanaam agent secret yeeg renseignement généraux yeeg ñoo ñëpp daw wax tubaab yi ne leen ah, am na kuñ gis kat koo xam ne daa mel fa gars yi daan jaar di jihaat fa la fa jaar ndax nit ñi bëgg nañ ko lool te lu leen wax ñu def ko te gëm nañ ko lool say ba ngeen teel a jóg def rapport yónnee ko Sëriñ Tuubaa message Sëriñ Tuubaa demut ndax dañ ko njëkk woo Sëñ Tuubaa bu leen fàtte ne njëlbeen tubaab bi dañ ko daan woo mu bañ ndax amugu ndigalu yàlla suñu borom njëlbeen dañ ko daan woo mu bañ du dem ndax amugu yàlla suñu borom tubaab bi woo sëñ bi demut descente bi njëkk def ci Mbàkke mooy Mbàkke Bawol googu keroog avant tubaab yi ñëw am na ahlu Mbàkke dafa nekkoon ak ña daan dëkk naan ay waay kii lu mu ñu nar a indil ay waay ahmadu mi lu mu ñu nar a indil te moo dem wuyu tubaab yi balaa tubaab yi du ñu fekk si fii ñii kat ñoo rey ceddo yi fi nekkoon kii teem ñoo teem ñoo ba ñu yóbbi musiba teem moo dem wuti ji wala li muy def mu bàyyi ko ñoom seen gis gi loolu lañ doon wax waaye Sëñ Tuubaa wax nañu jamono boobu la taalif rabbi bi maa yasrahu gii rabbi maa mooy yaa rahmaanu yaa rahim te Sëñ Tuubaa bi ko taalif bare dane ko mokk kan moo ko mën a mokkal léegi am benn taalib bu jóg Sëñ ne ko jàng ko Sëñ Tuubaa waa taalib bi jàng ko moom jeex takk Sëñ Tuubaa ne leen na seen xel dal buñ fa jëlee tubaab bi bu ñu fa ñëwee dara du yëngu fas woo xam ne sax ma nga woon ca gétt wala ma nga won ci ci wunugam ñu ñu takko fa nga xal sax du ko def ndax xam ngeen fas yi ak ak xar yi tubaab bi bu san ñew seen riri auto yi ak seen mëq do bi ñaan dal fas yi dañu daan ndax tit lañu ñaan def suñu tuba nek na ngeen dal ndax li ma ñaan ñaan na yalla son borom ci yermane ba tuba bi ñew duñu fi def lenn ku tëddoon na nga nelaw ku togo na nga tok ku taxaw na nga dox say soxla sobe yalla jam rek fi am ne na ngeen ko jang rabbi maishro maasraw rabbi maishro mat nay jang bo nek ci xat-xat bo nek ci dëkk man nga ko jang ndax lépp loo bëgg ci wàllu kiiraange aaraange yàlla su suñ tubaa ñaan ko yàlla su mu def ko bopp moo tax boo ñëwee ci xasida rabbi bi maay sow da nga ca fekk lu woon ne donc fekk lu mel noonu suñ tubaa xot ummatal mustafa an kulli mafsadatin wal tarxamil xalqa yaa man jaddahum badaa yaa malikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jami al wara yaa hadin rada kii bu ko naar yi amoon xeex du amati wallaahi sëriñ tubaa bu ko naar yi amoon xeex bi am du amati xanaa xamu leen réew mu la gën ay leader ci wàllu diine ñu la gën a ëpp solo ci wàllu diine seeni njiit am yërmaane dégg lislaam di ko jëfandikoo réew moomu ñoo lay gën mujj ñoo lay gën doxale ñoo lay gën population wax naa ko bu njëkk xam nga bu njëkk waaraatekat yi fii léegi lañ bàyyi rek waaye dañu attaqué mag ñi ba sonn waaraatekat yi dañu attaqué suñu mag ñi ba sonn da ngeen di bokkaale Sénégal ku waat ci ku waat ci diw waat ci waat ci nangam ku waat ci yàlla teg ci nangam da bokkaale dafa xaraam loolu def nañ leen ci xol yi Sëriñ Tuubaa jiitu leen ci xol yi moo tax dañu leen def nañ ko ci kaw suuf pour décorer Sénégal yooyu mënuñ ko moo tax dañuy mujj sax bàyyi ànd ak ñun léegi léegi ku ci waaraate yaa ngi jël waxi Sëriñ Tuubaa di ko wax ndax xam nañu population Sénégal li Sëriñ Tuubaa laa dara waaw kay loolu Sëriñ Tuubaa wax macha allah loolu Sëriñ Tuubaa wax wallahu yansur ni suñu borom jox na ma ndimbalal wal xalqu mbindeef yii say bëggee noppi de waaye mën nañ ci ñoom dara dañ may topp àdduna ak àllaaxira guddeeg bëccëg dañ ma ko topp te man li tax ñu may topp ko damay borom njariñ lu ànd am muus muus amul xel xaj amul xel te doomu aadama da koy tàggat di ko jox lekk ba lu mu ko digal mu def ko lu mu ko tere mu bàyyi rawat na doomu aadama ni yow suñ tubaa njariñ loolu mu ànd ak loraange mooy yërmaande fees dell moo tax doomu aadama bi topp ko moo tax waaraatekat yi ñëpp bu ñëwee mënuñ ci dara kon yërmaande ji la suñ tubaa doon ñaanal dem na bay ñaan yàlla ne ko yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawdi yow yàlla buur bu màgg bi buur bi nga xam ne yow màgg nga di fayanteeg sa jaam ñii sa jaam ñii may guñ la may jomm nga di fayanteeg ñoom kon yàlla na nga jéggal moo leen bindeef nga xam sëñ Tuubaa kon bi wax foofu chrétien bi sax mi biir yëfar bi ngi ci biir irham jami al wara la wax yàlla nga yërëm mbooleem bindeef yépp yow sàkk waaye xool leen am na fu gën a yéeme sax xasida gu gën a yéeme goo xam ne day mel ne sëñ Tuubaa dafa nekk avocat avocat boo xam ne dafa taxaw digganteem ak yàlla ak jàmm ci xasida gu yéeme koo xam ne di chaque jour ñu koy jàng muy xasida goo xam ne lu mat di jàng la moom tamit ni ngay jàng rabbi bi macha ndax gars yi jàpp nañu xasida yi gën a rëy rek gën a gudd rek moom moom boo ko jàngul moom jàngoo dara tépp xasida yëpp Sëñ Tuubaa ko bind benn baytu Sëñ Tuubaa boo ko jàng doy na sëkk wér du par jour Sëñ Tuubaa fi muy waxee ni mu xamee yàlla suñu borom ni mu ko xamee ak fi mu koy jaar ak ni mu koy defee ba bu àggalee mu ne suñu borom nangoo na li ma doon ñaan heure bu àggalee daaneel ne suñu borom nangu la ñu jaamu wama rumtuhu min maliki inqaadi bil anni loolu bu ma daanele suñu borom xasida goo mbooleem aay yi ma ci naan ñoom ñëpp dañuy daw woomatu ne sëñ bi ñoo ngi nii ana ki ñuy jàng ku ñuy jàng jëlal jëlal li nga jël ko waaye nag tamit boo gisee tamit murid yi des fois ñu ma koy waxee rek des fois day jiital lu la ñuy mujj lu mujj lu war lu war a jiitu njëkk loo xam ne kenn waru ko jiite loolu mooy tax des fois sax gars yi da nga gis ko am day durus a ba sonn waaye pour mu gis ni muy li mu bëgg sax day jafe loolu lépp ñàkk teg mbir yi ci yoon na waaye xasida képp koy jàng teg say mbir ci yoon ak na sëñ Tuubaa waxee nga jàng xasida te xasida li ko war njëkk jiitu ndax xasida dafa am luy ndayam am luy baayam xasida dafa am nday am baay xasida bu ñu wax lan mooy ndayam ak mooy kitaabullahi téere bi yàlla sunu borom bi jaawartullaha bi kitaabihi ilaa duxila janna jaawartu bi furqaan rabbiyal muin malak nafsi wa zazaxtulahi kooku mooy baayu xasida mooy ndey xasida mooy sëriñu xasida moo tax boo bëggee jote ci xaside yi li ci Sëñ Tuubaa ñaan nga am ko faw da ngay fonk alquraanu karim murid bi faw nga fonk ko bépp murid boo gis muy seb sebantal alquraanu mi ngi sosal Sëriñ Tuubaa wallaahi bépp murid boo gis jërëjëf bépp murid boo gis muy sebantal alquraanu karim am na ñoo xam sax seen réer réer gu ñu réer Sëriñ Tuubaa ak alquraanu karim dem na bañ amu fit sax naan ah man de lu dul li amu ci soxla lu dul lu dul xaside amu ci soxla kooku nag wallaahi xasida yu boo ci amee soxla da nga ko jàng ba junni at mais la nga bëgg doo ko am loolu da ko tax problème di faju waaye góor yàlla fi nekk di ay taalibi Sëñ Tuubaa di ay doomi Sëñ Tuubaa la ko dali seen photo yi koo ci gis mu yor photo sax ba Sëñ Saliou Mbàkke ko gis mu yor photo yaa ngi gis kaamil alxuraan kariim mu téye ko di jàng xanaa doo ma wax xasida yow nga mën a nekk am murid ñëw rek fétal soo yor mu di yëpp dañoo fétal koo ci gis daa fétal fi toll ber aw yoonu boppam moo tax nag bu ñu doon teg mbir fañ ko war a teg di jàng alxuraan karim bi xam ne sëñ tubaa nee na sëñ tubaa nee na alxuraan karim dama ko moom sëñ tubaa wax loolu te man damaa jàpp nit boo nee dama ko bëgg fonk ko lam moom da nga ko war a fonkle képp ku bëgg sëñ tubaa buñ ko tuddee nga yuuxu buñ tudd jàng xas daam ngay ngay rag-ragi war ngaa xool li sëñ tubaa moomoon li sëñ tubaa fonk nga fonkle ko boo bëggee jariñ ndax sëñ tubaa jël na alif nga xam boroom xam-xam ñu ko defiri dañ naan wallahu alam sëñ tubaa ñëw ne alif gi suñ borom nee na ma da koy firi sëñ tubaa moo bind loolu yàlla nee na ma awrasukal kitaaba dama laa donduloo alquranu karim bi yow laa ko donduloo yow yaa donduloo alquranu karim miim laam gi mu ne ko laqantekol kitaaba téere bii di alquranu karim man yàlla maa la ko sa maa la ko jàngal ndax bu leen fàtte ne yàlla mu njëkk arrahmaanu allama alquran gis nga musulman bi nga xam am alliwam soregut nga xam day doogu gëstu nekk ci université yeeg xamagul lislaam bu déggee ñu naan ah sëñ tubaa yàlla ko sa alquranu karim daana waaw ñuy waxati rek ngon da jang arrahman ar surut rahman bu ko jangal yalla mo arrahmanu allamal qur'an yalla mo jangal alquran karim alquran karim yalla ko ñëk jangale motax lo deg ñu ne señ tuba ko wax bo amé xam xam tuddi wala nga gëssu l'islam da nga fekk mu jaar ci ak yonenté jaar ci ak nitu yu baxé waye señ na da ñew am lo xamné kenn amuko ndax neena yajidu inda malikin muqtadir kullu walin lil jinan yaftadir neena wali lum gaaw gaaw gaaw ak nitu yalla ko mëna doon bo ñëwé di sét sa borom da nga fekk mo tok yalla di wax ak mom ak ko mëna doon kon koku moy señ tuba moo tax kon murit bu ne war naa fexe bokk ci gaa yi wattali Sëriñ Tuubaa alxuraanu karim mooy di ko jàng di ko jàngale moo tax bu nga gisee Sëriñ Suhaybu Mbàkke radiyallaahu anhu bi mu nee bërët ne danaa bokk ci ñi Sëriñ Tuubaa ñaan di ko sàmmale alxuraanul karim moo tax mu ubbi ay daara ñun ñëpp fa lañ jàng alxuraan karim man mi wax ak samay rek fa lañ dale ba siin mim mu jàng alxuraan karim ak ñeneen ak ñeneen génération yu njëkk yàgg mujj yëpp yu yëpp mu dal fa mu jàng lañ sëñ Suhaybu Mbàkke radiyallaahu anhu fas yéene bokk ci béy doowu Sëriñ wax mooy nee naa fexe ba bokk ñuy sàmmale sëriñ Tuubaa alxuraanu karim sëriñ Tuubaa li mu wax ci alxuraanu karim yéeme na lim ko kañ yéeme na kenn mësu kañ sëriñ Tuubaa li gën a yéeme waxuma la kañ alxuraanu karim waaye alxuraanu karim la ko dalee alif laam miim daal kitaab ba tey ila mi mina jannati wa mi mina jinnati wa naas daanaka aay woo jël sëñ Tuubaa way na ci xasida xasidaam yépp li naan maanaam day jël xuruufu aaye comme rabbi li ma anzal ilayya min gis nga ko Sëñ Tuubaa day jël benn baat ah benn xaraf boog lay jël bind ci aw bayit te bayit yi ni mu koy bindee mooy aay yi li ci suñu borom di bëgg a wax Sëñ Tuubaa moom la lay tekkil ci biir xasida gi moom la lay firi ci biir xasida gi moo tax am na benn waaraatekat bu mag duñ ko faaw ñu wax ko ndax ku ñàkk ñaan la ku ña Maxtaar Sekk mi nekk rajo Dakar xam ngeen ko ñépp xam nañ ko ci xam-xam bu sell bi mu yor daaw jékk wax na ko fii ci màggal Tuubaa témoignage bu mu def Sëñ Tuubaa mu ne man jàng naa te mag laa te liir naa gëstu naa mu ne li ma gis Serigne Touba andi ko ci lu bes ci tafsiru Quraanul Karim ak nim ko jappé ak nim koy léralé néna na la ko dara ci téré histoire yi may mata yi jatta jàng ca sahaba ya ba ni may wax ak yéen néna amul ben mindeef yàlla bako massa def ndax néna Serigne Touba da andi wat benen phénomène bu bes ci tafsiru Quraanul Karim da ko wat ay ay la jël Serigne Touba di jël wa innaka la ala xuluqin azim qul wa innaka la ala xuluqin azim nim mu tagg sallallahu alayhi wasallam ben ay ben harf bu ne fukki bayit ak ñaar la Sëriñ Tuubaa def laa la ala xuluqin azim benn bayit benn xaraf fu ne lool la ci def nga xam ne xasida googu waaw dëgg la ab Ablaye Niang Ablaye Niang yàlla ko yàlla guddal fanam te dolli ko leen waxtu wax nañ waxtu bi mu njëkk aju màkk bi mu di jës bu naar yi dañ doon yuxu ci kaaba gi di daanu wallaahi ndax fi Sëriñ Tuubaa yi waxee qualité yi nekk yonent bi sallallahu alayhi seen ñi dàq tagg ñoom ñoom Kaabu Xasaan Sëriñ Tuubaa dem na ba ne jéggi naa ñooñu ci wax ju neex wala wax ju rafet di daan wax yonte salaa salaam jéggi naa leen jaawastu fi fi madde kaaban wa xasana loolu suñ tubaa wax kon moo tax xaside yi boo xoolee lépp alquran li ko suñ suñ tubaa tënkee moo tax kon yow jullit bi suñ tubaa wax ci mañ moom bi blan bàkk wax nañ ko boole mu ne yow murid li ma lay digal mooy heure boo xëyee suba booy jàng suñ tubaa ko digle de na nga njëkk jàng alquran karim suñ tubaa ko digle nee na booy jàng alquran karim suñ tubaa am na yoon yoon wu mu wax ne moom nga jàng alquran karim mooy boo ñëwee jàppee ba sell suñ tubaa ne jëlal kaamil nga am yéene yéene ji mooy lan fas yéene naa yéene génn ci lépp lu ma yàlla suñu borom tànnalul fas yéene tàbbi ci lépp lu loo xam ne yàlla suñu borom tànnal ma ko nee nga jàng-jàng sa alxuraan karim sëñ Tuubaa waxulu ci dara ndax alxuraan yàlla moo waaye mu ne boo ci jógee sama xaside yii nga xam ne albaxariya xaside yoo xam ne ci biir géej laa ko def sëñ Tuubaa boo jàng alxuraan karim bare loo ca jàng loo ca fas boo ko jéene yàlla suñu borom may la ko kon li ma leen bu jëkk leen mbir yi ko tegu fu ñu war teg moo kon sëñ wax na ko maj moo dama ko fàtte woon ndax suñu Tuubaa ne boo jàng jàng alxuraan kay boo jógee jàng sama xasida loo ci yéene mën na la ko may kon moo tax murid yi bu ñu gaa yi fëkk ndax dafa am ñoo xam ne dañoo mel ne man rek maanaam euh, maanaam bëgg nañoo gis lenn loo xam ne intérêt ci nekk intérêt ci nekk ndax xam nga suñ Tuubaa loo ko woowal loo ko wooteel la Moussa suñ Moussa ko doon wax rek loo ko wooweel baatin ba saf xorom loo ko wooteel doomu aadama de wuyu si la am ñoo xam ne yoon woowu lañ jël di ci exploité nit ñi di leen gëmloo leen nangam dem nañ sax gaa yi dem nañ sax ba gëmloo gaa yi leen suñ Tuubaa nee woon bu fi jógee ñett la am ah bu ngeen jàpp lañ sama doom yi bu ngeen ma gisul ngeen jàpp sama ngeen jàpp ci sama xasida sama jumaa ji ay waa ji sëñ bi xanaa ko am gàtt gàtt moo naan sëñ Tuubaa dafay jóge ndax sëñ Tuubaa dafay jógee ah ndax loolu sëñ Tuubaa dana ko wax bu ngeen ma jàpp lañ sama doom yi bu ngeen ma jàpp sama jumaa ji jumaa ji ay birig la kon kii jéem a gëm loolu sax xanaa war naa xool ne kafaaniyal baaqi mamaata sarmada xanaa bu xamoon loolu ci xaati mun naa jàll sëñ Tuubaa wax du ñimee taxaw sax du xol mel noonu wallaahi loolu lépp nag ay gars yi la ñoo xam dañoo nekk ci biir yoon yi li ñaan diviser maanaam bëgg tàqale njaboot suñ Tuubaa ak taalibe yi maanaam gis nañ sëriñ si ñu ngi fi ñoom ñoo nekk ci biir taalibe yi naan leen ah njaboot léegi daal ñëpp a yem ñëpp a yem kenn baaxatul suñ Tuubaa jóge doom yi jóge nañ fi ay waay ay waay ana li suñ Tuubaa ñaan durriyatan tayyibatan tujaddidu nahji nabi Musaa te tahidu yow nga ne amul ay waay ji man ne ki ma gën a ñemee moo koy taxaw di waxal mel noonu barke sëriñ Tuubaa murid nag fu ngeen dégg ku wax lu mel noonu xoolaat leen xoolaat leen ku baax a baax a baax ngeen laaj ko bay di suñ Tuubaa ñaan durriyatan tayyibatan tujaddidu yàlla yàlla nga may sët yu tee yu sell yoo xam ne sama ginnaaw li ma doon yesan dañ ko yesan ay waay ana sëñ Muntaxa ana sëñ Sidi Maxtaar ana sëñ Moussa Abdou Khadir ana góor yàlla yi nga tax ñimee taxaw naan sëñ Tuubaa ne bu ngeen ma gisul jàpp leen jumaa ji allahu akbar ay waay gars yi ñimee te ñëpp ñu koy wax nag li ma leen wax rek pour régner kese kon nag moo tax li may wax man nee naa ko waxtaankat yi man damay jàpp ne benn benn benn des fois euh, euh, maanaam maanaam nit nag boo dee wax di xool lu ñu la defal sa poste wala xëy di mel noonu dana tax jataay bi ngay waxtaan do mën a wax doo leen mën a wax dëgg moo tax sëñ Abdoulaye Mbacke dana ne képp ku woo ay nit ñu ñëw wuy la na nga fexe ba wax leen lu neex yàlla ak yonenteem képp ku woote doomu aadama wuyu la sëñ Abdoulaye Mbacke na lay wax neex ak kon mo tax murid nañ delluwaat ci ci ci ci ci origine yi maanaam nga xamne fa la suñ touba tegon yoni moy ma ngi leen digal ndax man do be xaw te man saa su dama ci waxtaan guddeeg bëccëg soxlu mo ci kuma ci fay soxlu mo ci kuma ci gërëm ngërëmal sëriñ touba rek la ci soxla wallahi alazim amna ño xamne nak fi ñu toll li ñu gën a li gis comme gis nañ ne taalibe bi wut nañ xaside yi wut nañ kuréel yi da gis ne ñoom ñëpp foofu lañ concentré wuti leen ngir lan di leen waxtaanal ñu leen def nangam nangam man yooyu dama ci fekk dama bëgg lii xam Sëñ Tuubaa moom la wax te Sëñ Tuubaa waxoon ne jihaad bi gën a rëy ci jihaad yi Sëñ Tuubaa ne jihaad bi gën a rëy ci jihaad yi mooy summa nasihatu li ahlil baari xayru min a jihaadi fil kufaar yi xanaa xawma jihaad bi islam bi si def Sëñ Tuubaa neen loolu du jihaad jihaad bi musulman yi def ci réewi naar yi di rayante seigne touba ne lolou di jihad seigne touba ne jihad bi gën mag ci jihad yi moy nga jang dara donte o ay la jang dara donte ben xadis la jang waxi seigne touba donte lu gatt la nga juk fasiyene juk diko labiré sol say dal and ak wax ju neex kaddu gu noy seigne touba ne mo gën fouf nga ngab sa jass na dama jihad seigne touba lila defon jihad te da réussir ndax seigne touba musul yekati gobar musul yekati jass musul yekati dara yalla sutural nak ba keppaaram deret musu deret musu ci loxo seigne touba bi ko tubaab bi njëkkee jàpp nee na naan ko da ngay jihaat comme ni ma leen ko waxee léegi suñ tubaab dafa bind xasida yaa jumlata xad sallafu bi dalalihim man lam yëkkun lawóolu awaalidu xasida gu doy tubaab na ci lu mel ne xamee yi ci biir xasida gi mu ne waaw yéen ngi may tuumaal ne damay jihaat léegi maa tuumaal damay ah, damay jihaat jihaat gi wax ne dama koy def man dama koy def waaye suñ tubaab nee na kaay leen waxale man nan laay jihaat inni ujaahidu bil ulwi wa bi tuqaa abdan abdan xadiman wal muhayminu shahidu suñ Tuubaa ne man sama jihaad wuute naag jihaad yi amoon de wuute naag ni ko gars yi doon def man sama jihaad dama koy teg ci xam-xam science laa koy teg ak ragal yàlla bi Sëñ Tuubaa waxee loolu tubaab yi dañoo tubaab yi bi ñu ko déggee dañoo dar si gémmiñ daa ne waaw ñun yor suñuy mëq doom yor suñuy char de combat yor suñu lépp lépp kii naan damay jihaad ba pare ci xam-xam laay jihaad te ñun xam-xam adduna bi yàlla jox nañu ko ban mën a defe fital a rey léegi waaye boobu comprendre lu Sëñ Tuubaa fi muy waaye tey ji ku ñëw tubaa ñëw Sénégal da nga xam ne suñ Touba science bi mu waxoon ne moom la jihaate résultat baa ngi nii dund mooy jàmm ji lu biir Sénégal lépp na tekk ndax mbir moom manti doon da nga ko war a xam par ba la nga ci sóobu moo tax suñ Touba doon jihaat noonu ah ñu dugg nag Cheikh Mahamadou Lamine Bara Cheikh Mouhamadou Lamine Bara kon laa tafal seen bi xëy na idni fal su satra bi xabul seen i léegi nag ñaa ngi kuréel xasida te loolu c'est pas normal sëñ bi xanaa xamoo sëñ Touba bëggoon na xasida bëggin goo xam ne borom baat yu neex la Sëñ Tuubaa daan woo mag yi mag yi Sëñ Masamba yoo ngi dégg borom baat yi neex la Sëñ Tuubaa daan woo ñu jàng xasida waaye xam ngeen ne góor lu mu neex neex baat jigéen ko dàq baat jigéen baatam dafa nooy oyof lu mu ci wax doomu aadama yi dégg ko suñ Tuubaa bu daan mos a lu ñu kuréel sax bu ci borom baat bu xaw a xuur nekkee Sëñ Tuubaa fonk gum fonk xasida bu njàngin mu neex mi dana woo kenn ci mag ñi ne la am na kàddu ku ci rax de boo xam ne bokkute yeneen kàddu yi de mag ñi ne ko ah diw sàngam mu ne nan la mën a def ba ba mu génn ci te te te du am lu ko naqari mag ñi am mag ñu ne ah man dañ ko de ñu jekki-jekki daal di ñëw ci waajee nga xam ne baat bi daa ne ko wuy sëñ bi te nit lu masar jàpp boo ne ko wuy sëñ Tuubaa moom bàyyi loolu lépp bu ko defee sëñ Tuubaa bu ñëwee sëñ Tuubaa sant ko obligé ne ko dem ca kon dama lay wax ne kàddu jigéen bu moon dàq gu góor bu dagonoon sëñ Tuubaa bu yàgg la doon kuréel loo jigéen ñi bu dagonoon sëriñ Saliou Mbacke xaadimu rasul mi nga xam moo fi jóge barki démb di kuréel xaside yi nga xam ne sëñ Saliou bu ko daan dégg góor ñi di ko jàng is bi di ko jàng sëñ Saliou tàqali ko sagoom kon bu dagonoon sëñ Saliou ngeen njëkk a gis mu ay jigéen di leen jàngaloo bu dagoon sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke mii nekk fi jiguy mi ne yàlla fi yàgg te wér màggal Tuubaa is bu tarixee ngeen gis ñu toog fa di jàng du nga gis benn soxna bu nekk ci kanamam di jàng amul amul jigéen kàddoom bu dagonoon julli wala liqaam si Abdu Xaadir Mbàkke daana ko wax bu bu bu kàddoom dagonoon mooy mooy nodd moo dàq nodd ñëpp ndax baatam moo moo dàq yëpp loolu si Abdu Xaadir daan wax sëñ Fallu Mbàkke rek di la nekk na ci nit ñi jékki-jékki dégg benn jigéen bu yuux di mu ne wax léegi mu noppi xanaa xamul ne daa mel ne ku summeeku def awra si ab lan mbàkke saalika wallaahi képp ci njabootu Sëriñ Tuubaa nii lañ meloon léegi nag bàyyi bàyyi bi ak bàyyi bi nag moo tax ba nit ñi dañuy dem sax ba jàpp ne lii lu dagal la ndax nit bu ñu demee ba ayatun rek dañuy jàpp loolu dagal la bu ko defee nit daat koy bàyyi bu ko defee loolu nag nañ ci bàyyi xel soxna si loolu laabiri la bu ñu doon la bu ko defee sëriñ Baara Mbàkke radiyallahu anhu lañu la ñuy dugg ci moom yërmaane ji nga xam ne wax naa ko ci yàlla suñu la jógee jaar ci yonent sallallahu jaar ci Sëriñ mais sëñ baara kon ndeke ndeke kon li gaa yi daan wax lépp ci image ci ay déggin ci ay waxin ndekete yooyu yépp ay xuraafaat la ay nett li kese la yoo xam tegul fenn dañuy wax nit doomu aadama dëgg boo ko bëggee xam da ngay liir lim bind doomu aadama boo ko bëggee xam dëgg demal liir lam bind ndax nit ki li nekk ci xelam lekk ci xolam mu bëgg ko loolu lay génn di ko bind liy métier lay bind écrivain yi ngeen fi gis yëpp ak maanaam taalifkat yëpp boo leen gisee lañ gën a bëgg ci seen biir xol moom la ñu génnee moo tax benn borom xam benn waaye daa ñëw laaj ko ne ko àdduna lan moo ci gën a neex maa ala maa ala dul lan moo ci gën a neex mu ne ko àdduna li ci gën a neex mooy doxantu ci xelu doomu aadama yi doxantu ci xelu nit nee moo dàq ci àdduna waaye ji ne ko waaw am xel ni ñu mën a doxantoo mu ne doxantu ci xelu doomu aadama yi mooy ngay liir liñ bind ngay liir liñ bind kon sëriñ baara nekk bu ñu ko bëggee xam dëgg ñun murid yi rawatina fi ñu toll dañuy delluwaat ci ay xasidi sëriñ baara ci lañuy xam dëgg-dëgg yërmaande gi nga xam ne sëriñ baara moom la làq woon nga xam ne ñu baree bari dañ daan wax àll àllu sëñ baara dem nañ ba sax njaboot boo tuddee ñoo dañoo eh ñoom borom tàngoor lañ dem nañ ba ci taalibe bi sëñ baara yi sax ci ragal eh, dañoo tàng tàngoor yi fa ñu ko jëmee lépp mooy ku leen tooñ ñu sàbbi la ku leen tooñ ñu alag la déedéet sëñ baara jomm na lool sëñ baara bañ na ko ba waxee ñaari gaynde yi nga xam ne gis ngeen ko ci biir kër sëñ baara ñaari gaynde yi wallahi sama nopp moo may sëriñ Sidi Al Mokhtar Mbacke ñu dem fa àndoon ak suñu waa kër di ziyaar ji sëñ Sidi Mokhtar ne ñaari gaynde yooyu ñu gis buntu kër sëñ baara xam ngeen sëñ baara lu mu ci ñu ne tekk di ko déglu mu ne sëñ baara daa waxoon ne maay gaynde jàngoro di gaynde ajo aajo slogan la slogan sëñ mu ne maay gaynde jàngoro di gaynde ak nee na jàngoro ni kéwél di dégg sabu gaynde bu gaynde sabee ni ko kéwél di dégg ni tiit bërët daw bërti bërti wala segg sëñ baar nee na jàngoro dëkk bu ma nar a jub bu ma dëgmal jàngoro nekk fa day yëg sab googu nga xam ne day jóge ci gaynde ba bala maa dugg ci dëkk bu mu abal ma ajo tamit fu mu nekk xat ci doomu aadama yi bari ci ñoom bala muy ñëw doomu aadama duñ ko xamagul sax waaye aajo mooy xam ne gaynde gaa ngi ne gaynde aajo ngi ñëw bu ko defee mu départ dox foofu te kenn wérantu ne Sëñ Baara loolu jëfandikoo ci biir dundam peste bi fi amoon ñun Kébémer lañ féete am na benn dëkk boo xam ne boo demee ba léegi paa yi fekkoon na Sëñ Baara ñu ngi dund muy topp bi jëm dañ la koy nettali peste jàpp mooy comme Ibola bi fi amoon rek yàlla yàlla musul ab jàmm moo xasida yii sëñ baar bind sëñ Tuubaa bind ko nga gis musiba yëpp moo ñu ci musal sëñ baar dëkk boobu kër bu fa njëkkee dugg si pest bi am fa mag ñi jaaxle ñu jox ko te lakk nañ fa nit ñu bari ndax ku ma saan faat dañ lay lakk baara bi duggee ci dëkk bi mag ñi daw fëx ne ko day ah peste bi da ñëpp ndax ñëpp dañuy daw ñëpp ku fi faatu dañ lay lakk sëñ baar ne jël ab kaas jox leen kaas jox kaas sëñ baara naan ci astafurlah daal ci ñaan tefli ci nee nañ ko raay képp ku feebaroon sax ak lu ñu ko doon daw daw xam nit ñi dañ daan ku feebar dañ daan ber ci àll ba comme peste Ebola bi gis ngeen ko ni mel rek noonu la meloon dañu lay ber peste Ebola bi ñu ngi ma nekk histoire bu triste bu métti ci réew yu njëkk dal mooy Guinée dama ko lire ci internet bi bi muy doog am am na soxna soo xam ne da koo dal ndeysaan da ko affaire affaire dal ko waaye doom ji jotu ko laal waaye ñooñu dañoo jël soxna si tëj ko ci ko so doom ji nekk fa yuuxu di jooy mar yaay ja faatu doom ja di yuuxu di yuuxu ba ni mu faatoo wala ndax ku ko jege peste bi jàpp la peste boobu noonu la meloon suñ baara bi mu jëlee kaas naan daa wax ne képp ku feebar na ngeen dem nga raayal ko ko mag ngi ne ah départ ak lañ ñi ragal feebar bu lépp daw départ ku feebaroon ñu raayal ko dëkk boobu tobbu jëm keroog ba ñu ko defee pest ba daa toxoo ñëw feebaroon ñëpp daal di daal di dem seen yoon kooku amul yërmande ci jàmm mënu ko moo tax sëriñ baara kon jot na sëkk am sax su nekkit sëriñ baar bi sëriñ bas def léegi nit ñi xam nañ lu bare bari sëriñ baara xam nañ ne ni ñu ko daan dégg bokkut ak ni ni amee léegi moo tax am na xasidu gàtt goo xam ne ñetti bayit la te murit yëpp ngi koy jàng am na ñoo xam ne kër goo dem taf nañ ko sax seen bund seen kër waaye xamuñu ne sa xasida googu sëñ baara ko bind boole ko foto sëñ Tuubaa te xasida googu li lay xamal yërmandeeg sëñ baara dem na bay ñaan yàlla su borom ne ko xasida gi képp koo gis ci at mi yàlla mu faatu ci at moom moo tax sëñ baara daane koo daan koo gis ci at mi doo faatu muy yaa rabbana innal wara tadarra'u li awliyaika ma'an li yashfa'u ilayka yaa rabbal wara yaa rabbana yaa rabbana fa kun lana wajjih lana lutfan wa amnan yaa ahad yaa man ta'ala la wékkun ko fa ahad xasida gi rek doy na lémb xasida kese na lémb xoola suñ baara ni mu ci waxtaan ak yàlla su moom lii na la wekkat boo xam ne wa man yushaabih abahu fa maa dalam képp ku nuru sa baay wàcc nga képp ku nuru sa baay tooñoo sëñ baara daa namp ci weenu yërmande wi ko sëriñ Tuubaa nampotal ci la sëñ baara nampotal moo tax mu daan jug di faj aajo yi ba bind bàyyi fi gannaawam sax xasida yi boo ko di jàng aajo boo am yàlla su borom faj ko waaye la ma waxoon rek na nañuy jëkk li na nañuy jiiti li war a jiitu moo tax sëñ baara ne yow suñu borom yow mi borom bindee fi sa jaam ñaa ngi ñu amuñu kenn ku dul yow ñu ngi nii bari soxla lool ñu ngi ni feebar lool ñu ami jafe-jafe lool indal waraa la wax de waraa la wax mbindeef yépp ci bëgg ñooñu nag gis nañ ne am nga nit yoo xam ne tibbal nga leen beral nga leen te ku leen wut si loo bëgg ci ñoom defal la ko mbindeef yooyu kon ñu ngi sàkku ci yow di ko jaarale si nit yooyu nga tindu leen nga tindu leen yow yàlla suñu borom yàlla na nga faj fi seen i aajo muccal leen ci musiba yi ak balaa yi ak xeex yi ak rayante yi balaa bu ko tudd mooy xeex moo tax Sénégal nee naan ñu ko xeex mukk xeex du fi ku bëgg indi sax la Sëriñ Abdou Lahad waxoon rek jamonoy 88 bi événement Mauritanie amee ak Sénégal bi ko gouvernement bi waxee Sëriñ Tuubaa Sëriñ Abdou Lahad Mbacké dafa wax ne réew mi de Sëriñ na fi yàlla ñaan ñaan goo xam ne képp ku bëgg indi sa ay ayoo ci kaw lay këpp mi te booba amoon na na yu day waar yu naru na yoo xam ne ngemboon nañ ngemboon nañ suñu dëkk Mauritanie bëggoon leen attaqué nga xam ne seen arme yi ñu doon defar fi dañu ko bëggoon testé Sénégal waaye waxee réew yooyu commencé woon bëggoon a ngéem Mauritanie fa lañ noppi am jàmm ba ba nañ fa jógee ba nañ fa jógee xëy na doomu aadama fa jógee du tudd turam waaye li ñu juñ xam nañ ko kon réew mi sëñ Tuubaa dafay ñaan waaye mu ñëw gën koo findeel ñaan gi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moo tax sëñ Bara di wax ne yow suñu borom yàlla nga nekkal yàlla ñu nekkal te xam ngeen ku yàlla nekkal say mbir baax ku yàlla suñu borom nekkal loo bëgg loola day sotti waaye suñ Tuubaa xool sëñ Bara li mu tegaat wajjih lanaa lutfan wa na ya ahad yow suñ borom yàlla na ñu jox sa ñeewant ndax ñeewantug yàlla dafa am solo ñeewantug yàlla bak manam natu lum reey reey musiba lum reey reey bu ko yalla sun borom musiba lum reey reey bu ko yalla sun borom oyofale bu ca deggale ak ñeewantoom rek lepp de daal oyof motax ñom xam nañ ni ñaan yalla sun borom suñ baara lañu tegat ah, ya man taala wa amnan wa amnan la ci rek amnan kon amnan moy sécurité suñ tuba daal di suñ baara ñaan yalla ne ko yalla nak ñu may ak sécurité fi ci biir réew bi ak Sénégal ak fepp ab julli mëna nek xol leen kon Sénégal ni mel ni dale macha allah yàlla na jàmm ji sax te yàgg waaye nañ xam ko nañ xam li ñu téye mooy lan li ñu am nañ xam mooy lan ñu téye ko su fukki loxo juróom bu ñu nangu mukk fëkkati pas-pas yi loolu lañ tudde ñi xam dañuy dañuy agressé dañuy addu kalpe pas-pas yi ñu ngi nekk ci biir réew mi di ay sénégalais ni ñun jub bëgg a weddi suñ mag ñu baax ñu fi nekk boo leen tuddeelee Sëñ Tuubaa ñu wax leen boo leen tuddeelee Alaaji Malick ñu wax leen ko leen tuddee ci mag ñu baax ñu nekk biir Sénégal ñu ci lan ñooñu nag ñi ngi ci biir réew mi di attaqué pas-pas yi di attaqué nit ñi di len addu kalpe ñooñu nak sénégal yi war nañu xam bu baaxa baaxa baax ba ci sax seen khutba juma yi da nga gis ne des fois seen khutba yi ña ngi li ñaan dakh ginaar waxala soxla waye alhamdullilah limay wax sénégal mom say boo kuy kuy jëm dara say boo nga tek sa kii rek tëdd na la waye nak ndimbal la ci fekk loxol borom moo tax kon suñ baara ñaan yalla suñu borom am nan ñewantu ak sécurité kon xam ngeen ne kuy ñaan lu melni kuy ñaan lu melni ci mbindeef yépp koku da nga fees dëllëg yërmande ndax umur yermane yërmande ko ñaan xam ngeen kuy ñaan lu melni bu fekkon bu nekkon iraq wala mu nekk libi wala mu nekk yaman xeex du fa am xeex du fa am mukk buñ amoon nee leen naar yi dañ ko daan wax bu jëkk da nga dégg waaraatkat yi naan Sénégal nañ bàyyi bu ñu waxee ñu naan waaw mag ñu baax dañ fay nekk mag ñu baax dañ fay nekk waaraatkat ko daan wax ma leen wax nañ dëgg buñ buñ ñee waxee loolu ñu ne waaw mag ñu baax fépp lañ nekk ndax mag ñu baax ña nga woon Irak ndax Seydina Hussein Seydina Huseynu fa lañ ko faat shérif la nangam nangam ma leen wax nañ dëgg mag ñu baax fépp lañ nekk mag ñu baax fépp lañ nekk boo demee Irak am na fa fo dem am na fa waye xam nga Sénégal lu mu wuté réewi naar yi pour mo wax len ko te ngeen xam ko ba waaraatekat bi ngeen mën a jommalati mooy Sénégal nit ñu bax fi nek bo dem Irak nit ñu bax ay surafaaw ñëw fi sëtu yonent sallallahu alayhi wasallam bo dem Palestine ñofa nek xol Palestine ba leg mënu ñu am jàmm ay yonent sax ñofa nek mais lu tax ñu am jàmm lu tax mënu ñu am manam réewi yi mënu ñu am jàmm isib dëkk fu man di doon xana xamu len ne Sénégal li leen gëne moy ño yam ay mag ñu bax waye dañ leen gën ay top ay top ay talib li leen gën le ay talib li Sénégal gën le naar yi ay taalibe la ñu gën leen xam ngeen yontu sens bi fi jógee Seydina Ababacar moo ko mat sëkk di deuxième personnalité de l'islam bi fi jógee Seydina Omar ca mbat ga nga xam ne yontu sens danaan ñaan allahumma aizil islam bil omarayn yontu sens daan ñaan pour Seydina Omar tuub yàlla dëgër ko ci ak marta ba mu yor Seydina Omar dafa taxaw ci jàkk ji waxtu fajar di julli naan dëkk leen sàppe yi benn mokkum naaram jóge fa la yor xeejam fekk ko fi mu taxaw naan dépali sàpp yi mu wedd ko jam ko ko ba paaka bi sax wala yas billahi taala Seydina Omar daal di tërri ci suuf daal di faatu kan moo ko def du tubaab du nit ku ñuul naar ni ñoom ñoo ko def ñoo def lu mel noonu xam ngeen ne Sénégal gii waxuma sëriñ waaye kenn ñi mutu fekk sax ku naan yàlla nee na nga taxaw di ko weddi loolu Sénégal yi ñimiwu ko waaye naar ñoo fekk fa Seydina taxaw di xutba ñu def ko lu mel noonu fekk Seydina Aliyu ak martaba ba ak daraja ko yàlla suñu borom jox nga xam ne baabul ulum xoolal Sëñ Tuubaa ni mu leen tagge ci maanaam muqaddamaatu am ndax ni mu tagge saxaaba yi ayaa xaadima muxtaar laa tan sa saxbahum fa man yan sohum fal maddohum maddohum xatta u loolu Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa day tagg yan sax di ko tagg bi jàng mu ne ah ay waay yow sëriñ bu fàtte gaa yi saxaaba ya ñooñu ko ku leen fàtte tagg goo mën tagg yoon saa tagg des na Sëñ Tuubaa tàmbalee tagg maanaam Seydina Abubakar fa maanaam asiddiqu mukabbaru amar ah, sarwaahu naadirun maanaam Seydina Ousmane di leen tagg ñooñu nag la naar yi fekk Seydina Aliyu moom noonu lañu ko def tamit kazaalika di woote julli rek gaay fekk jam ko paakam fatu xol na usman ni ko def nga xamne yonte salas da wax ne malaki di kurus no omar kasaliku mu ne dañ ko ragal malaki dañ ko ragal ñoñu la naar yi fekk fañu julle ñu jëm leen pak ñu ray leen ñi leen ray ay naar lañ naar yoyu ba legi seeni seut ñuy dund ci réewi naar yi waaw loolu ndax legi man ngeen imaginer ne nit dana leble dana leble ndax dañuy wax ne leble moom ngay góob loo leble si sët bu ñew mom lañ gop kama tedin tudal loo yenn la wax japp ngeen ne mu ñu ray seyna omar Seydina Xuseyn yi dàq ko ba Irak Irak Irak lañ fekk Seydina Xuseyn surtout yontu sallallahu alayhi ak ni ko yontu sallallahu alayhi bëgg woon da ko daan fopp yontu sallallahu alayhi wasallam daan xutba bi jàgg Seydina Xuseyn Xasan daw dugg ci jàkk yontu sallallahu alayhi wasallam leewu leen tàmbalee defal xutba fonk leen bëgg leen lu ne mu ñaanal leen ko yontu sallallahu alayhi wasallam jóge fi naari waa Màkk yi fexe ba génn Seydina Xuseyn mu dem ba balaa fa lañ ko fekk rey ko reyin wu ñaaw a ñaaw a ñaaw li ci gën a yéem mooy dañu dagg ba boole yees billahi taala ñoo ko def duñ ay tubaab duñ ay nit ñuul ay naar ñoom lañ waa ngeen jàpp ne ñooñu ndax jamono bi ñu toll seen maam liñ lebalu nit yàlla yooyu ndax jàpp ngeen seen sët mën nañoo gundaanaat ndax jàpp nga ne mën nañu gundaanaat mën nañu am jàmm mën nañu am stabilité déedéet parce que dañoo lebaloon nit yàlla yi loo xam ne suñuy maam ñun Sénégal ak suñuy bàyyi lebaluñ ko Sëriñ Tuubaa fii kenn ku ne sa bàyyi ak sa maam jamono Sëriñ Tuubaa tubaab yi ñëwoon ñu doon sonal Sëriñ Tuubaa duñ duñ ay Sénégalais ay tubaab la ñoo ñëw ne sëriñ bi faw dañ lay sonal faw dañ lay génn dañ lay def mais heureusement sénégalais yi suñuy baay ak suñuy maam ñoo jóg langaam bi suñ tubaa nekk yow la foo ñëw foofu la ñu jëm moo tax kon suñuy maam bu ñu lebalee suñ tubaa lu baax lebal ko nit yàlla fi nekk seeni sët lu ñu war a dund jàmm ak salaam ak istabi ak dal moo tax kon lii sénégalais yi war nañu ko xam téye ku baax a baax seen fukki ko juróom lii rek la ñu wuteeg réewinaal yi ku mel ne sëñ baara foofu la nekkoon ci yërmaale jooju moo tax boo ñëwee ci xasida safinatu abraar mun yeetun min jumlat ashara loolu suñ suñ baara bind sax suñ baara booy imagine am mbindeem wala nga ko gis da nga naan waaw kii xanaa yàlla da ko indiwoon uniquement ci kaw suuf pour ne ko yow dénkuma la dara lu dul ngay faj aajo doomu aadama ak di leen ñaanal ak làq ni yërmaane sëñ baara daanaka booy li ay xasida moo tax murid yi may wax ne jàng baax na gars yi dañoo war di jàngaat di liir mi di xam ndax ci lañuy dem ba bàyyi xisas yi gars yi nett ak riwaayaat waaye sëñ baara boo demee ci safinatul abraar sëñ baara da ngay fekk bi mu waxee ne xaala muhammadul aminil makki yu najlu qadimil hashimil makki yi da wax ne kii wax kat mooy Mouhamadul Amin Mbakke mooy wax kii doomi kii liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al makki yi lan la ci teg alhamdulillahi alladi qad qaada liyal muraada kulluhu fan qaada maa ngi sant yàlla suñu borom mi ma jox lépp lu bëgg ci moom yàlla suñu borom jox na ma ko sëñ Tuubaa sëñ Baara ne maa ngi sant yàlla suñu borom ndax loo bëgg rek yàlla defal na ma ko summa salaatullahi bi salaami ala shafii saydi anaami topp maa ngi julli ak sëlman ci sangub sang yi muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa taabiin maa ngi julli tamit ci Seydina Omar momu gaa rayon ma ngi julli tamit Seydina usman mu gaa rayon rayoon Ali momu say say ci rayon yàlla na yàlla dolli ak julli ak sëlmal ñom ak mbolem ko ma sa jub sëñ Tuubaa sëñ Baara daa mujj sax mu ne xasida gi sax wa hadihi xasida man man hafidha man hafidha man hafidha jamiaha tunjihim min min min harri lada lolu lolu seigne bara Baara wax gi sax ku ko mokkal ëllëg sa war a yow ma yàlla suma do lakk seigne bara do commencé xasida gi nak yërmaane ji jim làqal musulman yi yërmaande ji mu làqal Sénégal xam nga lu suñ baar lu mu wax dafa wax ne fa maa lanaa siwaaka yaxmi min daran wa maa lanaa siwaaka yaxmi min daran ay yàlla yow yàlla amuñu kuddul yow amuñu kuddul yow ku ñu mën a aar ci ay loraange ak i ak njàqare yàlla yow rek lañu ci yaakaar kon yàlla yàlla nag ñu aaral kiis yi ak njàqare ak loraange yi suñ tubaa daan suñ baar daan ci dégg na ne wal takfi rabbi hunaka wa huna maa yajlibu shaqa rabba wal ana yàlla na nga fegal fii ci àdduna ak alaxira mboolem jullit yi ak Sénégal ak askanu Sénégal lépp loo xam day war ak texeeti ak coono wala tax mi yemul foofu de sëñ baara gën a xolub ñeewantu jàpp xolub yërmaan gën ko jàpp mu ne yàlla wala tax mihim min muusibaati nasam yàlla yàlla na nga leen fegal lépp luy waral njàqare wala coono wa muusibaati kurabin ak lépp luy waral ay njàqare wa taam ak coono yooyu yëpp yàlla su borom yàlla na ko fegal askanu Sénégal yàlla na ko fegal jullit Sénégal وجه لهم سعادة دارين يلا يلا نقلين مي تخيك أدنى الآخرة ووقفهم نعارين والنارين يلا نقلين فقرا غاتي أدنى غاتي الآخرة يلا نقلين فقرا سورة أدنى سورة الآخرة وجه لهم بركة تدوم فأنت أنت الحي والقيوم يلا سنج بار تجي خس فأنت أنت الحي القيوم مي نار تسمى الاسم لا أعظم أسماء لا حسماء يخمني كوي تجي سنجام لو نيان يلا سمو لو ndax xam na ñoom yàlla suñu borom fi koy ñaane lii la sëñ Tuubaa ñaanal sëñ Baara Mbàkke ñaanal askanu Sénégal kon kii ku la wax ne daa tàngoon kii ku la wax ne dana alake ëllëg moom dana ko lay ak yàlla suñu borom wallaahi te nit yàlla yi lu yéeme lañ gis na yi yàlla sosol leen bari na waxtaankat yu waxtaan ngir bëgg waxtaan woo neex ñu daal tàmbalee sos te yàlla yontu sallallahu alayhi wasallam nee na yontu sallallahu daa dem bu nee man ku ma sosal falyata bawa maqaadahu fi naare man kadaba alayya falyata bawa maqaadahu naka noonu noonu la walaa bali ci nitu yàlla yontu sens neen képp ku ma fenal waxal ma lu dëgg say ba mu préparé chaise ba muy toog ci àllaaxira cee sawara say ba mu préparé ko naka noonu nitu yàlla yi noonu lañ mel képp ku leen sosol nga la waxal ngeen lu du dëgg yontu sala salm nee na say ba nga préparé ci chaise ci a ndax yàlla moo ne man aadaali xadisu qudsi yu man aadaali képp koo xam ne yaa ngi noonanteeg sama nit yàlla yi di leen gaaral di leen def dàngam nag na la wóor ne yow man yàlla man nga amal affaire kon ndokk ñun yàlla Sénégal bi ñu yàlla dimbalee bañ bëgg nit yàlla yi bi ñu yàlla dimbalee bañ bëgg nit ñu mel nii moo tax fu ñu leen wootelee ngeen ñëpp bàyyi li nekk daal ñëw kon mbokk yi kon bu ñu toppee wax ji duñ fi jógee ndax suñ baara xas di ko dem zahabul iblis boo fa demee loolu la fa wax wax waqaftu yaa rabbi suñ suñ baara bu ñu wax sax ne yow ya waqaftu yaa rabbi bi baabika urid nay la léegi lam yaxi abid yàlla maa ngi taxaw su bunt bi di fëgg li ma bëgg mooy am loo xam ne kenn amu ci jaam ashku ila rabbil wara aw jaa'i walam yazal rabbi musiba daa'i yàlla maa ngi lay tawat samay tiis ak samay njàqat ngir bëgg nga fajal ma ko waaye suñ baar lam ñu teg ko yàlla nekk fajal naa ko suñ baar dana déedéet du ma dem de war duf bina wa bi jamii al muslimina wal muslimaat abadan fa la amin yàlla jox nga li may jox waaye dama bëgg yàlla nga wàcc sa ñeewantu sama julliti Sénégal yi sama mbokk julliti Sénégal sama askanu Sénégal yi yàlla nga wàcc ñoom ñeewantu booleem julliti Sénégal suñ baar loolu teg daane anzil wa yudhibu afaati wal balaa yàlla yàlla nga wàcce saafara joo xam ne dana gàccaal bépp jàngoro ak bépp tawat bu am ci biir Sénégal wa yudhibu afaati wal balaa yaa yàlla yàlla nga demal mbooleem gàkk-gàkk yi ak musiba yi waj'al lanaa min kulli hammin farajan yàlla yàlla nag ñu may ci bépp yàlla nag ñu ci bépp xat-xat buñ dugg nga may ñu ci buntu bu ci génne waj'al lanaa min kulli diiqin maxrajan yàlla nga defal xat-xat bu mënti doon tamit ñu am fuñ ci génne wa najjinaa min kulli ma naxaaf yàlla yàlla nag ñu muccal ci lépp lu ñu ragal falam nakhaf min kay di man axaafu loolu nak moy terrorisme ngeen deg seigne bara ñaan nako sax falam nakhaf min kay di man man man axaaf yalla yàlla nag ñu muccal ci lepp lu ñu tiit waaye ba duñu ragal sax ki juk naan dañu terrorisme bëgg ñu ray naan dana da mabbu seen jakk yi dana dem daana seen bammel seigne bara neen yalla koku yalla ngi muccal ci ay pexem te loolu yàlla su ko kon seigne touba seigne bara yimu fofu da dem ba ñaan sax wa najjina min ihtiyaajin li tabib wala tujibu du'a ya xeere mujib li la suñ baara ak ñaanam xol leen Yalla, neena da dem bi jagg sax mune yalla yalla yàlla ñu muccal ci soxlo ab docteur te gars yi ko fatte ñaan nit ñaan xéewal di kurkuri di liggéey dem Europe ubi société ya señ bi bu ñëwee señ bi señ bi ñaanal ma sama bir mi dox sama souci dox bu ko de señ bi ñaan ci lool rek léegi na société day dem ba dox alal di ñëw febar dal di dugg febar dugg la bu la febar dugg nga tàmbaliwul médecin señ sëñ baara nag ne yalla yàlla nag ñu muccal ñuy baña a soxla ab docteur gis nga ku su mborom dimbali ba do docteur war nga sant yalla docteur yi ku leen yàgg seet li may wax rek ku yàgg dem seen bidéel yi seen seen bureau yi wala seen cabinet yi bu soobee yàlla léegi wuyu ji àllaaxira yàlla na kon moo tax suñu baara ñaanoon suñu borom ne ko yàlla ñu muccal ñu seet ab tabib kon mbokk yi kii mu nekkoon suñu baara moom lañ doon waxtaane di ñaan yàlla yàlla na boole alladina yastamiu qawla fa yattabiuna ahsana ulaayika alladina hadahum llah wa ulaayika al albab yàlla ñu yàlla may ñu teew ko at at ci barke Sëriñ Tuubaa ñu ngi ñaan baax sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke yàlla na fi yàgg téwéen di ñaanal sëñ Bassirou Mbacké Xaadim Awa Ba occasion bi ñu may ñu Sénégal ñëpp ndax tey ñëpp a koy seet événement bi ci àdduna en direct bépp njariñ bu ñu ci def xam leen moom am ci ndax man sanna na képp ku sos lu baax da nga ci am yiw waaye képp ku ci dégg jariñoo ca wala mu jëf ca yontu salaasam neen danaa ko werseet sa compte ba nga xam ne ëllëg yoom xam ku ñu ko jox sa wetu ndeyjoor nga mucc àdduna ak àlaxira yàlla nañu yàlla boole ci ñoom di wax waa axiru dawaan alhamdulillahi